dellu waat nañ ak yéen ci jataay yi nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma bi yor liggéey jumaa ji ñoo koy taxawee fii ci jumaa ji waxtu wu nekk ci bis bu nekk ci heure bi ñuy jël ay tomb yoo xam ne yu fasantikoo la tomb yoo xam ne dinañ ci jàngat lépp loo xam ne aju na ci suñ dundu àdduna si waaye itam dinañ ci jàngat lépp loo xam ne aju na ci dund gële ñu jëm muy dund àllaaxira muy ay fatwa itam yoo xam ne dañ ci ubbi ay laaj ak i tontu wut ay boroomi xam-xam itam yoo xam ne ñu ko mën a taxawe la ñu mën a taxawe wàllu googu la ngir ñuy taxawe tomb yooyu tey jii nag di ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ñu war a indiwaat tomb boo xam ne moom itam ci biir tomb yooyu bokk na ci yi nga xam ne moo gën a am solo muy duruusun wa ibar min xayaati cheikh al ay bind ak i njàngat ci dundu suñu sang bu tedd bii di cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala an ku ne xam na ne sëriñ bi ci boppam dundam gépp kiimaan la kon ñi aju ci moom war nañuy jàngat saa su nekk ak dundam yenn bind lañ ci mën a jële xam naa du neex a waaye ñu jéem tegu ci tànk yam awoon ndaxte ginnaaw moom jàngale na ba jóge bind bàyyi kon dafa mel ne lim fi bàyyi warees na cee mën a aw ki ñu war a defal waxtaan wi nag di sëriñ Mamour Hamdi di ku ñu miin ci jataay bii di ku ñu miin tamit ci taxawe lu mel nii mu mel ne tomb yi war a waxtaane rek ci biir waxtaan wi ginnaaw bu indee ab laytaay boo xam ne da koy laytaayale waxtaan wi dana indi ab nubza ci dunduk sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu bu ko defee nag doog dugg ci tomb bi nga xam ne moom lañ bindoon war koo waxtaane muy bind yiñ mën a jànge ci dunduk sëriñ bi radiyallahu taala anhu bu ko defee daal tëj ni ma ko waxe woon léegi ku ne xam na ne sëriñ bi dundam gépp kiimtaan la ndax boo demee ci ay mbindam dangay gis ne mi ngi wax ne xustu xayaatan la tura li gayri mujizatan baanat li usni mu ne làq naa dund goo xam ne keneen ku dul man làq ko maanaam li ma def ci sama dund ci lu baax keneen ku dul man defu ko kiimtaan la itam ci képp koo xam ne yàlla tawféexale na la ngay koo xam ne danga yor nopp yu mën a dégg lu baax kon ci biir loolu dañuy jox sëñ Mamor mu dugg ci biir waxtaan wi yàlla defal ñu yàlla defal ñu nopp yoo xamante ne bii dana dégg kiimtaani sëriñ boobu dana dégg itam bind yiñ mën a jànge ci ak dundam te ñu mën koo jariñoo kon sëriñ bi nañ la jox nga dugg ci biir waxtaan wi ngir xataayu waxtu wi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi musu ji seytaane di sant suñu borom di ko jéggalu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko safoo di ko ñaanal xéewal di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom nga li ko gërëm di nuyu kilifa yi fii teew ci jotaay bi yépp di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma mu sëriñ Afee bu al imaam di suñu nijaay ñu koy siyaare di siyaare waa daayira bu baax a baax ak mbooleem rek ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi di jottali ay ziyaara yoo xam ne day tàmbalee ci Maolana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te dolli ko wér dolli ko kattan di sant bu baax daayira bi ci jotaay yu am solo yi nga xam ne miin nañ ko weeru saa bu weeru koor ñëwee ñu di ko taxawee ak mbooleem rek jëf yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci barab bi jëf yi liggéeyal sëriñ bi féete fii féete taxawaay boo xam ne mutu yëpp la war ñoom ñu nekkal fi mbokk taalibe yëpp kon loolu ñëpp amel nañu leen ci ak cant di ñaan suñ borom barkeel ko def ko muy liggéey bu bu bu ñu nangu ni ko sëriñ Assane waxee euh, tomb bi ñuy waxtaane mooy ay ay bind ak ay jàngat yu ñu mën a def jëlee ko ci dunduk Cheikh Khadim radiyallahu anhu arda Euh, muy waxtaan woo xam ne kon moom lañ wax ne moom lañu war a waxtaanee muy tomb boo xam ne tomb bu am solo la liñ ci waroon njëkkee sax muy laytaay gi Sëñ Asan ni ko tàmbalee daanaka rek naa mën a doyloo loolu muy euh, tomb bu am solo boo xam ne am na solo ndax ñi nga xam ne dañoo jiitu ñëw ba jàll moo xam ay yeneen si lañ moo xam ay nit ñu baax di jël ay bind ci seen dund loolu lislaam da koo fonk lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan doon na ko daan na ko nett si léeg-léeg mu nett li ko ay ñu baax ba yàgg mu ne ko ulaayika allazina hadallah fa bi hudaahum muqtadi ñooñu kat suñ boroom ma leen gindi moo leen jubal na man ngaa roy ci ñoom kon ñu baax ñu yàlloon ñuy jàngat ci seen dund danañu dimbale ci suñu euh, ngir ñu mën a jubbante suñu maanaam di jàngee ci suñu démb seen démb ñoom di jo mën a tabax suñ tey ngir joyante suñu ëllëg euh, loolu xam ngeen lislaam alxuraan soññu na ci julli ñu ba tàyyi euh, di leen wax ne leen nañu nañu jàng ci ñi nga xam ne jiitu nañ laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil léeg mu nekk si leen saa salaam dara ba pare ne ko ñooñu kat seen mbir ni mu demee képp ku kuy kuy xalaat rek mën na cee jànge laqad kaana ko fi rasulillahi uswatun xasana ak yu dul yooyu di yuy saxal rek ne lislaam saxal na ne nit ñi nga xam ne dañoo jiitu woon nit ñu baax mën nañoo jàngee ci seenu dund ñi nga xam ne euh, seenu mbaax des na it mën nañoo jànge ci seenu mujj kon lu am solo la tomb bi it am na solo ci waxtu yu ñu ko waxtaane muy jamono yoo xam ne àdduna sëpp rek dañoo nekk ci ay crise yu wuute crise yooyu yi ci gën a fës rek mooy crise yoo xam ne crise yu delluwaay crise yu royukaay crise yu kenn ku nekk xam si fan ngay dellu ngir mën a ngir mën a euh, sàmm li nga xam ne mooy tax nga bokk fi nga bokk maanaam li ñuy wax sa identité ku ne li tax nga sàmm ko loolu euh, kuréel yu bari ci àdduna bi du Sénégal dong kuréel yu bari ci rek at yëpp dañoo ne ci jafe-jafe kon indi tomb bu mel nii ñu waxtaane si loolu dina am solo ci jullit ñi am solo ci taalibe yi ndax ku ne rek li tax mu mën a sàmm identité mooy mu xam mbir mi li mënta ñàkk ngir bokk ci loolu bu ko xamee ci la koy mën a ba ba tax du ci génn a jullit bi lii tax ba li nga xam ne bu ko ñàkkee dootu nekk jullit loolu faw mu xam ko ngir doog a mën a sàmm identité murit bi it faw mu xam yi koy tee nekk jullit ak yi koy tee nekk murit su leen boolee yooyu lay mën a sàmm ngir ak muritam mu mën ko sàmm kon di waxtaan waxtaane dunduk sëriñ bi di ci jëlee indi loolu lu am solo la ci jamono ju ne waaye rawatina ci jamono ji ñu nekk nag tomb la boo xam ne nag ni ko sëñ Asan waxee dunduk sëriñ bi lépp ay bind la lépp ay ay ay jàngat la euh, moo tax waxtaanee ko yomb na jafe na yomb na ndax euh, tomb boo loo jël ci dundam rek mën nga cee génne ay bind kon loolu dana yomb ci tànn bi jafe-jafe fi muy nekkee rek mooy ban ngay jël ak ban nga dul baax ngay xam ndax bind yi day mujj bari ci sa kanam ba dootoo xam looy jël ak looy baax ni ko suñaa sama waxee sëñ bi sëñ bi ci boppam waxal na boppam ne moom ak dundam dund dund la goo xam ne bu bu ko suñ borom xéewali xéewali bari la ba ne sax dund gi suñu borom da koo boole ci xar baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xus xayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat li usni xayri ak yu dul yooyu mu wax ci ci ci dundam gi ni ko suñu borom defee baanat li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya ak bay bi suñu asan wax léegi ci ci jaawartu euh, lastu ashuku abadan fii kaw nii jaaral ba di ajaban lil kaw nii yooyu yëpp da ciy junj rek wane ne dundam gi moom suñu borom barkeelal na ko ko defal na ko ci xéewal yu bari yoo xam ne ku ne mën na ci jànge ku ci jàngee di nga ci di nga gisee màgg suñu borom bi bu ko defee ni ko suñu asan waxtaan wi ci ñaari tomb rek lañ koy def bu njëkk bi mooy ginnaaw ay bind lañu ñuy jël ci dunduk sëriñ bi dina baax ñu tënk tënk bu gàtt ci ci dundam googu noonu bu ñu waxee dund gi li ñu ci jublu suñ jugee ci loolu rek li ci des moom mooy ay bind yu mën a jëlee ci dund googu lu ci xaj ci waxtu rek ñu ñu def ko ci moom ni ngeen ko xamee Maolana si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, di ku ñu miin koo xam ne ñu ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, des na ko woowee wala dina woowee boppam sax abdullahi wa xadim rasulihi muy garaat ci moom di aw tur ci moom di dàkkantal ci moom euh, bëri ay tur yu ñu koy woowee ni ngeen ko xamee xaadimu rasul al abdul xadim cheikhul xadim sëñ Tuubaa euh, ak yu dut yooyu ci yoo xam ne danañ ko koy woowee suñ borom tànnal ko ay waajur yu baax yoo xam ne ci askan bu baax lañ bokk muy sëñ Maamor Anta Sali ak soxna Jaara Buso ñii ay nit ñu jub di ay borom yi xam-xam nit ñoo xam ne lu jiitu démb ak bërki démb askan yi ñu bokk ci jub ak jubal rek la ñu leen xamoon kon ci askan wu tedd wu mel noonu la ko suñu borom tànnal mu feeñee ci mu feeñ jamono ci dëkk bi ñuy wax Mbàkke Bawol soriwul fii xam ngeen maamam bi ñuy wax maam maaram di ñaareelu maamam moo ko ci mu feeñ fa jamono ci euh, nisfu Shaaban ci atum charan 1270 du sori ay 1854 yooyu mu feeñ fa jamono moom sëriñ bi kon euh, ba ni mu génnee àdduna ci njaareem ci weeru muharram ci atum 1346 muy 1927 nga xam ne bu ñu ko nattee kon ci weeri ati wolof yi nga xam ne ci la daan nattal boppam mën nañ dund na lu mat juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom euh, dund gu barkeel bu fees dell ak njariñ ak xéewal juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag fanweer ak ñett yu mujj yëpp ci loxoy tubaab bi la ko nekk xam ngeen ci bu tayee ñu génne ko fi bu subaa ñu yóbbu ko fee di ko fontoo di ko foowee fanweer ak ñett yu mujj yëpp rek ci dundam ci seen loxo la ko nekk yóbbu nañ ko Gabon mu def fa ko yàggu fi ñu mu def fa ñeenti at ñu yóbbu ko Jolof mu def fa juróomi ñu yóbbu ko Njaareem mu def fa fukki at ak juróom-benn ba ni mu wujjee boromam ñëw fii ci Touba. kon ci dund gu metti googu la dund gu xat googu nga xam ne bu ci bu réalisé woon bu réalisé wutoon dara sax des na ko mën a comprendre maanaam des na mën a des na ko mën a nangul ndax euh, wax xawtoon a mën a ne muy jëf loo xam ne lu ñuy waxtaanee ëllëg lay doon ci diggante boobu mu nekk ci ci ci loxoy tubaab yi waaye yàlla dimbale ko ba diggante boobu mu nekk seen loxo yëpp defu fi lenn loo xam ne lu lu diine bañ la wala loo xam ne euh, sax wala mbañum rus dana ko dana ko ci jam sëñ bi diggante boobu mu nekk ci loxoy tubaab yëpp suñu borom defal na ko sutura ba deful dara lu ko diine ji yeme euh, bi mu tollee mu doonoon borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam da ko da koo jaar si ko ñëpp di jaar bi mu tollee ci jàng suñ buñ delloo ci li suñ mbàkk bu sa wax euh, ni yaayam sëriñ bu soobee moo ko dalal moo ko dalal ginnaaw mu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe koo xam ne maam la ci moom ndax ko soxna Asuwaala mu jàng ci moom alxuraan bay bëgg a mokkal tafsir mu dem ci mu dellu kër waajuram bu góor suñu maam Mor Anta Sali fa laa galee njàngum alxuraanam bi njàng mi àggee mu daal di tàmbali njàngum eh, xam-xam yi diine yi lislaam yi fiq ak yu aju ci yooyu ba xaw caa sori jàng na ci ñu baree bari ginnaaw bi ñu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe ñu jox ko eh, sëñ Sàmba Tukulóor ka koo xam ne moo waajuram bu góor ay doomi lay lañ mu wéyal di jàng ci moom nee na sax sëñ Maam Sali bàyyi na ko Saalum ñëw Kajoor lu mat at moom mu des ci sëñ Sàmba Tukulóor di ko jàng wax nañu ay risaala ak ci moom la ko jàngee ba ni mu ñëwaatee Kajoor fekk si waajuram di wéy di jàng moom jàng na ci ñeneen ñu bari ci digg-diggal boobu it euh, ku mel ne Cheikh Mahamadou Fadil ad yi mi nga xam ne am ci waa Mauritanie la bokkoon daan ñëw ci gox boobu wax nañu ne sëñ jàngale ci moom rawatina lu jëm ci ay mantiq ak ay balaaxa yu demee ci noonu ku mel ne xaadima jaxate kala sëñ bi jëriñu jëriñu si moom ci wàllu xam-xam waaye nag nee na moom jàngalu ko ab téere nee na nee na xaadi yóbbu mu ab téere mu di ma ko jàngal waaye dama daan bind ay bayit di ko ko jox mu di ma ko toppaatal su toppee jubbanti jox ma ba ni mu mujjee ne ma nag léegi say bayit mënatuma cee gis ay njumte léegi daal li ñu seq mooy ngay bind di ma jox may mokkal ak loolu la ñu seq kon foofu la jaar ci xam-xam ba ñi amoon xam-xam te jamono teg moom ñëpp seere ne Sëñ Tuubaa borom xam-xam bu ko kenn seere wutoo nit mbindam min fi ku ko yër xam ne kii moom ki bind lii moom borom xam-xam la bu gëstu la bu xóotal gëstu la borom xam-xam la bu ràññee tamit loolu moom suñu borom defal na ko mu doonoon nit koo xam ne it mi ngi feeñ jamono ci askan woo xam ne askanu tasawuf lañ ci tarixa xaadiree la ñu bokk mu nekk ci seen biir bi mu demee ba toll ci jël wérd mu jël al wérdul xaadiri jëlee ko ci waajuram yeesalaat na ko ci ñeneen nit dox ci doxin woo xam ne sax askan wi mu bokk mën nañ ne moom rek lañ gis mu mu jox ko yitte jooju dem fu ne di ko fa yeesu fu mu dégg ñu ne am nañ ko fa mu dem yeesu fa wirdu bi dem ba gànnaar yeesal ko fa waaye silsila bi mooy moom fi mu jëlee wirdu fi mu jaar fi jaar ba àgg Cheikh Abdul Xaadir Jilaani radiyallaahu anhu loolu lépp di wane solo ak yitte ji nga xam ne joxoon na ko joxoon na ko euh, dox ci yoonu yàlla muy wéy ci noonu ba wax nañu sax yenn jamono yoroon na wirdu xaadir yi ak tijaan yi ak wirdu chazili yi lépp di yitte jox joo xam ne joxoon na ko joxoon ko loolu doonoon nit ku maandu ku bëri yërmande ku woyof koo xam ne ku dëdd àdduna xam ngeen jamono ji mu nekk njaareem daanaka Sénégal mën nañu Sëñ Tuubaa mooy ki fi ëppoon doole boobu ndax ñi ëpp doole ci réew mi ñëpp moo leen yilif ku yilif maam Cheikh Anta yilif maam Thierno yilif sëñ Mandumbe Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Dieng ak ñi ma tuddut ñooñu ñëpp ku leen boole yilif réew mi nga nekk yaa fi ëpp doole te li muy yilif yilif ñooñu it teewut ci ay néegi ñax la dëkk di dund dund dund gam amoon démb ak bët ki démb rek Euh, ngir dëddu àdduna boo xam ne dëddu na bu ngeen xoolee yére mbubbam yi muy sol rek ñi ci mas a gis mbubbam wala ñu gis ci foto bi dangeen di gis ne yére yi sëñ Tuubaa yooyu yére yii la rek ay malikaan ak ay perkaal ak yii nii rek yii dong la ku ko mas a gis sax yi ci ëpp loxo lañ ko ñëwee wëñ la nga xam ne mbubb la daal day fexe ba sol mbubb noonu rek mbubbum sëñ Tuubaa kon fi fekkoon fii ci ñun buñ la ko joxee te waxuñ ne la mbubbam doo ko jël boo boo xamee ne moom ko jël muy sa taxe àdduna ak alaxira waaye boo ko xamul ko jël ndax doo ko soxla foofu la àggoon ci tolxlu foofu la ci dëddu àdduna yore lépp te nanguwutu te dara yilif lépp te dara ñoru ko ci euh, kon euh, nit ku maandu la woon nit ku dëddu àdduna nit koo xam ne ku daa jëmmal dëggi dëggi lislaam la woon euh, noonu la wéyee ci ci yoon wi ba ni ko suñ borom baaxee nag mu am tariixa boppam di di loo xam ne lu mag a mag lu rëy rëy loo xam ne man nga ne mbooleem lu mu doon sàkku rek ci la ko amee di loo xam ne ci moom lañ ko njëkk déggee ci gox bi yëpp nit ku ñuul ku ku ku jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi am wirdu boppam am tarixa boppam loolu moom fii fépp ci Sëriñ Tuubaa lañ ko njëkk a ci moom lañ ko mujjee déggee itamit nag loolu kon di lu rëy loo xam ne suñu borom baaxee na ko ko euh, booloo taxoon ba Cheikh Cheikh Sidiya sax li mu koy woyee rek ne Cheikhu Ahmadu ni'matun awlaha hasil xalaa'iqa kullaha mawlaha ne Sëriñ Tuubaa mii daal euh, xéewal la rek loo xam ne suñu borom moo ko baaxee mbindeef yëpp moom noonu la meloon ci ci nit ñi bi mu fi ñëwee ba ñu fi jógee lu jariñ nit ñi rek ci la nekkoon euh, daal leen xettali loolu nag daa ko bind daa ko wax daa ko daa ko jëfe kon foofu la jaar ci ci dund gu barkeel googu dund googu nag ci lañ bëgg a jël ay ay bind ngir ma njëkkanteeg euh, waxtu wi rek su ko defee ni ma ko waxee woon bu ñu duggee nag ci tomb bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg waxtaan mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci ci dunduk sëriñ bi ay bind yu mën a jëlee ci dunduk sëriñ mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci ni ni suñ borom doxeek moom suñ borom min jëflanteek Seex euh, Xaadim loolu ay bind la ay bind gi ci yoo xam ne jullit ñi mën nañ see jëriñ beneen xaaj bi nag di ay bind yoo xam ne moom ci aw melokaanam ak aw doxinam moom sëriñ bi ci lañ koy jëlee bu dee bu njëkk bi muy bind yu ñu mën a jëlee ci ni suñ borom jëflante moom bi ci jiitu mooy aaya suñ borom di wax ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak fa'alun lima yurid ne suñ borom dara tëwu ko te it lu ko neex def loolu ku jàngat dund Cheikh Khadim radiyallahu anhu ñaari mbir yooyu day fës lool ci fi ko suñ borom jaarale ba fi mu ko mujjal ndax ku xool fi mu ko jaarale ñu ngi ko boloon ci ay noonu ni ñu amee woon kattan te lépp lu ñu xam ci lu ko mën a faat wala lu ko mën a lor ñu di ko def subaa ngoon guddeeg bëccëg te suñ borom aar ko sàmm ko ba mbiram mujj fi mu mujj da ngay xam ne li suñ borom waxoon ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak wax na fa'aalun limaa yuriid loolu mooy li dëggu ci ni suñ Tuubaa ni ni mu jëflante ak moom mooy noonu yëpp ànd nañ bëgg koo lor waaye suñu boroom ci kattanam ci cof ci coobareem bi nga xam ne lu ko neex mu def ko ci ci la ko sàmmee ba mu mu mu mujj fii nga xam ne euh, day day wax sax moom ne yoonu géej gi yëpp li ko walal mooy suñ borom daa am ñett yu mu ko bëggaloon rek bëggoon na koo jox daraja ju màgg ci moom bëggoon na koo def muy liggéeykat bi yonent sallam bëggoon na koo def mu doon kiy xettali ñoñam ñett yooyu la ko bëggaloon te su demutoon du ko mën a am moo tax mu dem muy mu nekk abdullahi xadimu rasulihi nekk shafiu xawmihi muy sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian mi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon foofu bind a ngi fi ci bépp jullit mu xam ne suñ borom li mu waxoon ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ba léegi jugu ci mooy suñ borom lu ko neex mu def ko te tëlewu dara loolu bind la ñaareel bi ci ni suñ borom jëflanteeg moom it des na ci jàngee ne li ñu li alxuraan di wax ne wala aqibatu lil muttaqin mooy dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj ndax euh, suñ tubaab jëflanteem ak tubaab yi jéggi woon na kenn ku tudd Cheikh Ahmadou Bamba rek tubaab yi di ko génne dimension bi weesu woon na lool day mel ne diggante xëccoo la woon diggante dëgg maam ak neen tooñ ak maandu lëndëm ak leer diggante yooyu ñoo doon ñoo doon xëccoo ngëm ak kéefar ngëm ak wetti nga xam ne mujjoon na jéggi jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci waaye fi ñu ko jaarale fépp mujj nañ mboolem lañ ko doon bañal tey jii la gën a yaatu tey la gën a yëkkatiku lislaam tey dafa gën a sampe yoonu murid gi mu doon woote ñu doon ko ko tere tey la gën a yaatu ba ci yoon yi gën a rëy ci réew mi ak ci Afrique gépp mbirum sëñ bi tey la gën a yëkkatiku tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko a bëgg te loolu donc lañ ko doon bañal xam ne kon loolu day wane rek ne dëgg lu mu yàgg-yàgg rek mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin li suñu borom wax ne wa inna jundana lahumul ghalibun lu mu yàgg-yàgg rek euh, ñi ne ci dëgg ñooy mujjee ñooy mujj ndam moo tax dañ koy indi moom sëñ bi jaareem sax mu mu muy wax ñaari bayt yooyu ne kat ñu may indi fii yaakaar ne dañ may yàqal fekk xamuñ ne suñ borom daf ma ci defaral ne ñëw gi ñu may indi jaareem nag suñ xamoon li ma ci jële danañ ma ko soxale ba duñ ma fi indi daan ne ndax ñoom ñaar yi lañ ciy jële ñu fi ñëwee seen mbir da ciy jeexe dañ ci loro man nag ñaar yi laa ci jële moom mooy sama mbir da ciy sax ba faaw te suñu borom daf ma ciy tarale muy raamu masiri ilaa jubal la daa rachasin law aayanu sirra ma fi sayri maa raamu fa sayru mawtun liman xad naazan wa azan wa innahu liya ibqaaun wa ikraamu ne moom ibqaa ak ikraam la ci jële suñu borom da ciy saxal mbiram muy wéy ba faaw da ciy taralit te loolu bi mu ñëwee njaareem ni mbiram yëkkatikuwaatee loolu ñëpp ñëpp teg nañ seen bët loolu di wane ne kon li suñu borom waxoon ne wala loolu it lu fës ci dunduk sëriñ bi la mooy lu mu yàgg-yàgg rek dëgg mooy mujj euh, des na ci jàngee li suñu borom wax ni inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin mooy ku jëf yàlla fay la ku jëf rek suñu borom dina la fay ndax sëñ bi lim daj lépp ci ay coono muñ ko yemut ci muñ ko waaye sant ci suñu borom gërëm ko ci ci lim ko teg xam ne moo ko teg te xam ne daa am lu mu ko namal moo tax mu jox ko ko loolu euh, moo tax mu mujj mu sax rek ci boromam ba suñ borom mi ñëwee indi fay gi mu ko fay mooy li ñu wax ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu maanaam képp ku nekkal yàlla rek faw yàlla nekkal la wax nañ ne sax Cheikh na ko daan na ko firi ne ne ne man kaana li kumu rek kaana kooka lahu waaw ku koo nekkal rek kooku dana la nekkal daan ne kon rawatina yàlla suñ borom mi nga xam ne nag moom moo gën a tabe moo gën a baax moo gën a maandu loolu it fes na loolu ci ni suñ borom jëflantee ak moom euh, nga xam ne ñoom la dajaloo nit ñu doon ko moo xam ay sénégalais lañ moo xam ay africain moo xam ay tubaab wala naar ñi ku ci doon dënge fiñ mujj seenu mujj feeñee na ci li suñu borom bi wax ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin mooy kuy tooñ faaw dina am bés kuy tooñ du mucc te kuy tooñ faaw dina am te sëñ bi mi ñu toppee mbooleem ñim jëflante loon donte genn bëccëg lañ ko mas tooñ génn ñu kaw suuf jógewuñ ci kaw suuf lu dul suñu borom toroxal na fii ci kaw suuf laata ñu fi doog ñëpp ñëpp ñëpp suñ bay gee seen dajale na ci ab téere boo xam ne ci tubaab la ko bind am na yeneen mbokk yi ci dajale leneen tuddee ko fanso koy fu kanaan dana génn loolu lépp di wane ne sëñ bi waa mboolem ku ko mas a dënge suñu borom mën na la ko fii ci kaw suuf laata nga fi jóge loolu nag am na ay bind yu ci mën a jàngee ñun mën nañ cee jàngee ne kat ndax boo xoolee sénégalais yi nga xam ne ñoo doon jaxase sëñ bi ak tubaab bi ñu ci ëpp ci ñoom mbir mi mi ngi déparé woon ci fiiraange rek ak coxor ak ñaan teewuñu seen xol yéemu ñoo mun seen bopp ba mu yóbbee leen ñu jóg def ay acte jóg dem ci tubaab bi jaxase leen ak sëriñ bi euh, loolu xam nañ ci ay nit yu bari yoo xam ne nañoo tudd ay tur xam ne dëkk ñoo xam ne mbir mi bi ñuy départ gisoon nañ suñu benn mbooloo mi ñu xaw koo fiire rek dem nañ mujj nag ba mënatuñoo tee seen bopp ñuy ruuxale diggante ak tubaab bi kon euh, loolu bind gi ci ne ab jullit war naa wattandiku képp kàttanam lépp lu jëm ci coxor wala kiñaan wala fiiraange ndax da koy yóbbee ay musiba bu ko muy tuut wala ayaasu billah tubaab yi it bi jaxasekat yi ñëwee wax leen loolu buñ teeyoo duñ dal ci kaw sëñ bi ndax kon danañ xam ne mboolem liñ leen doon wax dana jaxase moom dëgg waaye ñàkk a teey gi it moo leen yóbbee ñoom it ñu ñu daal di doxee niñ doxee kon loolu bind ngi ci ne li alxuraan waxoon ne yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in su su su benn waaye ñëwee rek jox leen xibaar bala ngeen a def benn acte bala ngeen a wax jël benn position na ngeen na ngeen gëstu ba xam ne lii kat dëgg na te nii la demee te danay faral di am nag bëri na ay girawaale yu am yu léegi ci àdduna si yëpp réew moo mën a dem yoo xam ne ci ay demale ak ay fekkale rek ci lay ci lay ci lay jóge ko toppee ba ci biir ay rumeur rek lay doon comme ñu koy kon ñooñu fi ñu mujjee tooñ kay di war nañ cee jàngate ci xam ne kuy tooñ moom faaw dina am bés bi may mujjee ci ni sëñ bi jëflanteeg ni suñu borom jëflanteeg moom rek mooy li suñu borom di wax ne say jaalullaahu ba'da usrin yusra mooy daal Euh, képp ku bëgg teraanga xaw di nga ko sonn suñu borom noonu moom mooy ni muy jëflante ak jaamam ñëpp ngay jullit ngay leneen ku sonn gis résultat bi fii ci àdduna àllaaxira moom boo dem jullit boo jaamoo boo àggee fekk ko fa mooy li suñ bi di wax rek ne wax la bi anal majda laa yunaalu illaa bi xadril kaddi fii ma xaalu ne kat teraanga doo ci am lu dul lu toll ne la nga ci daj ci ak coono rek lu toll noonu da nga ci am euh, moo tax sax moom junj loolu ci mbiram wane ne nabbaxtukum maana ala kaddin bada lii xabla an ara lii xabla an ara ridan mu abada maa ngi leen di xamal ne kat daj naa coono yu méttee métti laata muy am ngërëm lu sax li nga xam ne am naa ko waxaan ne feneen sax ne nabbaxtukum maana ala kaddin bada lii xabla an akuna baxran musbida maa ngi leen di xamal ne kat euh, daj naa coono yu méttee métti te tar laata may mujj mel ni ma mel doon géej gi duusu rek ci ay xéwal loolu lépp di wane ne jullit bi dafa da war a jaral maanaam dafa war a xam ne teraangay àdduna ak teraangay alaxira teraangay àdduna liggéey koy may teraangay alaxira jaamu yàlla moo koy may maanaam ku ku ku ku bëgg a tedd faw nga nangoo sonn kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo jëlee mu juróom yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ni nga xam ne suñ borom jëflante na ko ak Cheikh Khalil radiyallahu anhu beneen ñaareelu xaaj bi ay bind la yoo xam ne nag moom day jógee rek ci doxin mi nga xam ne moom sëriñ bi moom la dox ni ni doxe muy ay jikkoom muy ay melo muy ni mu doon doxe yooyu moom yii may bëgg a wax moom mën a roy la du ay xarbaax waaye yu yu mën a roy la moom yuñ mën a roy la bokkut ak jël jëlub der julli ci géej géej yooyu bokkut ak yooyu yii moom yuñ mën a roy la ci képp ku ko bëgg bu ko defee mën nañ cee am ñeenti yu bokkut yu jëm ci wàllu diine xam-xam yu jëm ci wàllu jikko yu jëm ci wàllu kilifteef ak ni ñuy lif ak nag yu jëm ci wàllu rek euh, suñu biir jëflante bi bu dee xaaj bu njëkk bi muy lu jëm ci wàllu diine ak xam-xam bind bu jiitu buñ ci mën a jàngate mooy euh, Seexul Xadiim ku xool dundam gépp gis ni kii ak jullit la bu fonk jaamu yàlla fonk jaamu yàlla mooy bind bu njëkk bu ñu war a jën ci ak dundam fonk jaamu yàlla jël boo ne jaamu yàlla jëlal naa farata yi waaye sunna yeeg ya ca aju fonk koor yi fonk koor yi gàtt nañ fonk naafile yi gis ngeen sëñ Basiru sax wax na ci meneen baaxi xadim sëñ bi daan na julli ñaar juróom-benn rakka wala ñaar rakka ginnaaw timis yoo xam ne ba ak alan rang ci tari bisu set amul jëlam ci loolu bokkut ak yeneen nawaafil yeeg tahajjud yi mu def ak yooyu di wane ne kon jullit bi war naa xam ni ko fi indi taba ko fi te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kër kër gi lu mu bari bari yëngu li lu mu bari bari yitte ji ñu fi indi woon te baju fi mooy sàkk ngërëmul yàlla te mënee su ko sàkkoo ci lu dul jaamu yàlla bi mooy ab bind bu ñu mën a jël ci loolu ñuy sàkk xam-xam lay gën a yitteel mooy nangoo euh, tegoo ay coono ngir ngir sàkk xam-xam maanaam Sëñ Tuubaa bi muy sàkk xam-xam da cee sonn ay coono yu mettee métti am na ñaari xista yu yu yéeme yu ci nett li ne ñaari téere yi njëkk a jëndal boppam nga xam ne moo ko jënd moomal ko boppam ci xaalisam nee na téere bi mu njëkk jënd moom ko mooy téere imam Ghazali bi ñuy wax Bidaayatul Hidaaya nee na téere bi boobu ma nga ci Saalum toll ci njàng am njàngam sax soreegul yenn sori yi benn naaru gànnaar di ko jaay ne ko benn dërëm la ko jaaye nee na waaye yoruma njëg gi nag amu amu yoruma njëg gi ma ne ko yoruma ko de waaye jaral ma ko léegi da ñëw ñu ànd fu mu lijjanti ko rek ma jox la dërëm dëjël téere bi nee na mu ne ma waaw dem sëñ bi nee na man sama aada da cee bokkoon du ma laaj kenn xaalis bu ma ñëwee fenn daal dinaa ñëw rek bu dem jotee ma dem buñ ma joxee baax na suñ ma joxutam du ma du ma laaj kenn ndax xam ngeen laaj rek dafa baaxut laaj moom yàlla rek moo moo ci mata laaj pour yàlla boo ko dee laaj loolu mujj sopp yàlla bu mu sant sant yu gàtt loolu sëñ bi nee na bi ñu ñëwee ñu dem ci euh, kenn koo xam ne ak taalibe la woon ci si morom sëriñ ku yor bitig di jaay maanaam taalibe doon na jàngee ci moom daal nee bi ñu ñëwee ma ànd ak naar bi ñu nuyu ko nee na waa ji bi ma nuyoo rek dafa tàggoog sa ko mer daal may xëcc yóbbu ma ci ginnaaw ne ma lii nga sol nee yére yi ma sol xaw naa màgg daal mu ne ma yow doomi kilifa sa bàyyi sa waajur ni mu fi mel ni mu toll nangam na ngay sol li waroo di génn mbubb yóbbu ma ci ginnaaw ma sol ko sëñ bi nee na ma jël rek daal di sol summi mi ma soloon moom lem ko teg ko ca yoonam fa ma jaar mooy ñibbi daal demaat ñu toog ba ñibbi jot mag naar bi ñu ba ci yoonam mu jëlaat mbubb moom amoon mbubb mu xottik moom solon daan ne naar bi ndax bëgg nga mbubb mu bees mi ma jël téere bi naar bi ne ko bu ma ci jotee nga yaa moom téere mu summi jox ko sol mbubb mu xottik moom solon téere boobu nee na mooy bi mu njëkk a jënd ci kaw suuf nga xam ne ci mbubb la ko jëndee mbubb muy bidaay te bidaay téere boobu nee na bi mu demee ba ci kanam ba am njàngam sori moom la mujj taalif tuddee ko tuddee ko mu la yéen suluur mu la yéen suluur téere boobu noonu ba mu njëkkoon a jënd xam ne mu la yéen suluur moom la yeesalaa tuddee ko mu la na ñaareelu téere bi moom it mooy téere fatal atfal bu sharh laamiyatul afaan nee na loolu kajoor lay doon xam naa nee na boobu benn naa la ko di leen ko jaay ci ñetti dërëm mu wax la ma waxoon ko njëkk rek ne ko nañ dem ma lijjanti ko nee na mi ngi ànd moom ak maam Thierno ak ma Masamba jot Samb nee nañ ñu wër nangami dëkk gox yi leen wër yëpp wax dëgg amuñu ñetti dërëm yi ñu ñibbisiwaat ak loxo yi neen naa bi xaw na koo tooñ sax nag waaye bi ñibbisee fat eh, suñ borom yombal mbir moom jot ci téere bi nga xam ne ñetti dërëm yooyu rek laata ma ko jox nee na wër na nangami dëkk amu ci sëñ ma Diop Masamba nettali na ko ne sëñ bi fekk na leen jaay ñu toog ci benn jotaay moom sëñ Modou Masamba ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Moustapha nee na sëñ bi tegal leen ndab toog na ci seen wet ba yàgg mu mel ne ku xaw ak kii ak ñoom ne leen di am na bis bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Moussa ne leen am naag bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Awa Balla ak bàyyi kee muy sëñ Modou Massamba nee na ñoom ñett ñu àndi wër bëgg ñetti dërëm ñu wër nangami dëkk te mënuñu ko am ne leen loola nu mu demee tey jii nii te sëñ Modou Diom nee na jamono bi mu koy wax ñun dañoo seex ba soxlawuñ sax suñu waajur li ñu yor ñoom seex nañ ci kanamu sëñ bi nee na mun leen gis ngeen nii mbirum suñu borom ni mel nee na ñu seen ñetti bàyyi àndoon nañ bis bëgg ñetti dërëm mu tëleen ci nga xam ne kon coono yooyu yëpp da ko doon toggoo ngir ngir ngir xam kon loolu it bind ngi ci ci ñu toll ci sàkk xam-xam ci ñu xam ne dañoo war a nangoo sonn ngir xam-xam mooy la moo xam maam Ceerno ci kuntaati man rek ba mu jeex kon kuy toll ci sàkk xam-xam rawatina jamono ji nga xam ne luxe bi dafa bari téléphone yu cher yi yére yu cher yi yooyu yëpp luy luy fëkk luy fëkk jàngkat bi la jàngkat bi moom dafa war a xam ne rek daa am lu ko tax a jóg mooy sàkko xam-xam bu dee wërsëgam mu bàyyi ko ci loxol suñu borom euh, is rabbuna mutakaffil rizqa allati yata'allam loolu lu lu lu wér la beneen bi ci toppit mooy bind buñ mën a jële ci ñi nga xam ne ñoom jàng nañ ba noppi wala boog jàng nañ ba sori mooy nag ñu dundal xam-xam suñ bi bi mu sàkkoo xam-xam ba ba noppi yemut ci am xam-xam noonu bi jàngale waaye dafa dundal xam-xam ni mu ko dundalee mooy dafa taalif waaw nit bu sàkkoo xam-xam ba noppi bokk na ci yi ko aw fi ko aw askanam di gën a xaar mooy mu dundal xam-xam fi ne mu ubbi ay daara di jàngale waaye mu taalif te taalifam yu bari yi ngeen xam ne diwaanu wax la mu diinee rek dajale nañ ci mat ñaar fukki ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mbir ci ay téere xam-xam bokkut ak min wasaaya bi nga xam ne rawd rayaxin génne nañ ko bokkut ak min xekam bi rawd rayaxin génne woon bokkut ak min fatawa bi nga xam ne Sëriñ Abdou Khadre ko génne yooyu yëpp ay mbir ni yoo xam ne Sëriñ Tuubaa fi la ba loolu moom bind ngi ci ci ne kon ñiy sàkk xam-xam it buñ sàkkoo xam-xam ba sori war nañoo góor góorgóorlu ci ci dundal xam-xam mën nañoo jëlee bind it ci dunduk sëriñ bi ci ak ubbiku goo xam ne day ànd ak yeewu ubbiku ci ñëpp waaye goo xam ne yeewu da ci ànd yeewu mooy mën ngaa jël ci ñëpp waaye da ngay segg bu ñëwee nag euh, ku xool ci misaal lu mel ne Masaalikul Jinaan xam ngeen sëñ bi mu koy taalif dellu na ci borom xam-xam yu bari imam Ghazali yi sëñ bi da ko fonk di dellu ci moom bari ba ne sax borom xam-xam bu ne su ma jëlee ci moom dinaa ne xaala diw su ma nee xaala dina waxtu la daal ba mu su ma nee xaala rek moom laa bëgg a wax ndax li jël li mu jël ci waaye teewut li mu koy fonk fonk di jël ci moom dafa am rek wet gu mu ko soxla mooy li li li ñooñom soxla loolu rek la jël ci imam Ghazali maanaam imam Ghazali li xam-xam bi bari bari li mu bind ci falsafa maqasidul falasifa taxafatul falasifa ak beneen téere bu ndaw bi almunqis min ad-dalal yooyu yëpp da ko faa bax dem jël li mu soxla ci Ihya Ulumuddin indi ko xëy na leen léeg mu laal si xut ya indi ko dugal ko ci Masaalikul Jinaan ndax ñi muy taalifal ñoom lii lañ soxla lu jëm ca ca ca ca falsafa xam-xam fu muy jóge ci xel yi lay jóge wala ci cër yi wala ci fan la nekk yooyu yitteelu ko moo tax da ko faa bax doonu ne dafa baaxoon waaye ñii muy wutal soxla wuñ ko moo tax loolu it jàngkat yi baax na ci lool ñuy bàyyi xel seenu askan mooy lu ñuy jëggaani di ko indi na doon lu dëppoog li ñu fi soxla fii ci barab ndax loolu lool rek ay mbëkkante lay indi ndax ku jëggaane ay ay xel rek da ngay indaale ay jikko yu bees ay jikko yu bokkut ak yi ñu fi xamoon loolu it bind la bu ñu mën a jëlee ci ci ci dunduk sëriñ bi waaye it bañ a sànq sa dund bañ a sànq sa dund fonk sa waxtu dund gépp nga fexe ba lépp nga feesal ko dellu ci njëriñ xam ngeen ne sëñ bi bi mu feeñee ba ni mu génnee àdduna dund gi lépp lu barkeel la amul wenn waxtu ci ak dundam moo xam dafa neen du suba du ngoon du bëccëg du guddi waxtu yëpp da koo dundal ba mu fees dell ak ay nga xam ne loolu suñ Basiir di wax naan fa layluhu nahaar wa nahaaruhu nuur maa lil agyaari fi zamanihi nasib innama huwa li rabbihi tabaraka wa taala ne sin bi guddeem yëpp ay bëccëg la bëccëgam yëpp leer la ay caaxaan amul amul place ci dundu si xarit radiyallaahu anhu lépp lépp suñ borom la ko jagleel loolu moo ko may jëf yu mag yi mu jëf ak ni ko teree def xam ngeen ne sëñ bi tàmbali naa taalif te amul ñaar at xam nañ ay bind sëñ Tuubaa yoo xam ne bi koy bind amagul ñaar fukki loolu yitte la ju kawe yoonu bii li muy rëy rëy ñu koy wone ci fanweeri at la toll fanweeri at fanweeri at ci mooy ñi feeñoon jamono 93 li muy woote yoonu murid la toll Masaalikul Jinaan muy rëy ñaar la ko bind Daaru Salaam ci ay fanweeri la ko taalif Tuubaa gi fanweeri at ak juróom-benn ci la ko taalif bi ñu koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent fukki at ak ñett ci la topp ci la toll doonul góor gu màggat lañ jëloon noonu déedéet te boobu fekkoon na yii ñu ko toppee moom mu def yëpp ba not sëñ Tuubaa bi ñu koy yóbbu ci géej gi mu sañ ci ay dëkk seexal ay ay nit samp ay jëwrin xetti la ay ñu dul jeex samp ay daara yooyu defoon na ko doog ko dem ci géej gi nga xam ne loolu lépp ci ci ñeent fukki at yooyu dafa def te fi mu ne nii jamono ji ñu loolu ko am ñeent fukki at sax daanaka def dara wala koo laaj lu def maanaam ki gën a jàmbaar da lay naa kër wala am naa oto loolu du loolu du dara de ndax ku faatu tey bu suwaa ñu miraas ko loolu bokk rek kenn ku nekk ci ñun rek bu ko neexee mu laaj boppam moom bi mu ak léegi lan la jëfal lislaam kenn ku nekk ci ñun fi ñëpp mën naa xalaat bi mu feeñee jamono ak tey lan la fi jëfal lislaam ku sa xel demut ci dara lu leer rek xamal na jëfa ko dara moom ndax kër moom taxul ñuy wax oto taxul ñuy wax yooyu moom wërsëg la ñëpp ci bokk yam ndax ñu du julli sax am nañ sëñ Tuubaa bi bi bi fi sëñ Mor Anta Sali xëyee jóge moom bu génnoon àdduna ci ngoon googu maanaam bu woote wutoon yoonu murit tam moom liggéeyal na lislaam moom sëñ Tuubaa moom liggéeyal na lislaam laata muy woote yoonu murit mooy ak dundam dara neenu ci kon loolu bind a ngi ci ci ne nit ki war naa fexe ba bañ a sànq ak dundam bañ a sànq ak dundam te fonk waxtoom bu baax a baax ñaareel bi ay bind yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ci wàllu jikko ci wàllu jikko melokaan bu njëkk bi mooy njariñul njariñul gëm yàlla ak doyloo ko gëm yàlla ak doyloo ko njariñ li mu am ci ab jullit ndax sëñ bi dundam gi yépp day wane jaam bu wakkeelu si boromam ngëm yàlla gu mat sëkk moom la jóge woon ngànnaayoo wakkeelu ci suñ borom doyloo ko xoolul benn mbindeef du jàmbat kenn rafet njort ci boromam sàmmoonteeg teg gi ñuy war diggante ma borom te lépp lu mu dogal mu neex ko bi mu demee ba am loolu ci la am pas-pas am yëg-yëg fas ci xolam gëm ci lu wér ci ne njariñ ak lor ci suñu borom dong lay jóge juguwul ci ñu weex ñi juguwul ci ñu ñuul ñi juguwul ci ñu baax ñi juguwul ci ñu baaxut juguwul ci soppe yi juguwul ci ñi nga xam ne ay noonu lañ moo tax mu doon wax man zanna gayra llaahi yugni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin képp ku jaa ku yaakaar ne am na kenn ku mën a jëriñ wala mu mën a lor ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kooku àdduna ak alaaxira ci coono lay dëkk moo tax bi mu amee pas-pas boobu nag moom ci boromam digganteem ak boromam doyloo ko ci lu moo tax mu mujj amul benn mbindeef moo xam ne mu ne benn mbindeef mu muy ragal bastu axaafu durra xalqin baadama fawwadtu amriya ila rabbi sama moo xam ne daal maa ngi ragal moom lor ndax jël naa sama lépp teg ko ci loxol suñu bu ngeen xoolee bëgg ay jëf yu mu jëf yuy wane wakkilu gu mu wakkilu ci boromam wax na ne keroog bi mu nekkee ndar ñu koy bëgg yóbbu ci géej gi te demagut fanweeri fan ak nangam yooyu mu fi def nee na toll na ay jamono mag yi njàmbur yi kilifa yi am ñu fa ñëw ci moom ne ko dañoo bëggoon nga may ñu ñu wax tubaab yi tinu la ci ñoom ñaan leen daal nag wax dëgg ñun xam nañ la xam nañ ni nga mel ñaan leen ngir ñu bala bañ laa bañ laa génn dëkk bi wax a wax seen wax yu rafet ba pare nee ma sant leen ne leen nag xallu na wa bayna rabbi wa huwa arfau bi minkum wa aalamu bi ma huwa aslahu li nee na ma ne leen sant naa leen gërëm naa leen waaye nag bàyyi leen maag suñ borom suñ borom moo ma gën a yërëm ci yéen te moo gën a xam li gën ci man kon génn leen ci roy ko Seydina Ibrahima te la ko malaayka yi waxoon mu ne leen suñ borom xam ñoo xam ne maa ngi fi rek doy na ma sëkk boobu sëñ bi lu mu ne woon waaw rek génn ndax ñun dañu ko lijjanti mu ne leen génn leen ci rek waaye suñ borom loolu wakiilu gu mat gu mat sëkk gu mu am diggante ma boromam rek moo ko may te dañu ci loolu gis ngeen ba keroog bi muy génn daaru mën naan te kenn ci seex si xaar ci kanamam ne ko may ñu rek jox ñu ndigal dimb lañu tubaab yi moom bala ñu defee génne ñii lay jël si leen faat ñoom ñëpp wala ñun ñu faat ñu bañ jeex ñun waaye yow booy génn dooñu fi baax nee na sëñ bi ne leen sëñ Basiru ne na sëñ bi ne leen inni lam arju sadiqan wala ma axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne soxlawu ma ci ab xarit ragaluma ci am noonu te sama mbir ci loxo suñu borom képp la nekk te sëñ Bachir nee na boobu murid niñ toll néewuñu doole buñ so buñ songoo woon ak gaa yi dana metti waaye murid néewuñu doole boobu waaye sëñ bi ne leen bu ci kenn dugg moom naka jekk liggéey bi bàyyi leen mag suñ borom rek lay wax mësa nangu kenn dugg ci moo tax Cheikh Sidé sax bi mu koy tàgg gis ngeen bi mu koy tàgg ci xasida googu am Cheikh Ahmadou ni'matan awlaha da koy ne sëñ bi daal xéewal la gu suñ borom baaxee mbindeef yëpp wax nañu ne xasida googu indi woon am na ko ko doon jàng ci wetu sëñ bi di jàng bay di sëñ bi di déglu muy jàngal ci tari tari ba mu agsee ci bay du mu naan yarda isa jalasat umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha nekkat moom lépp lu lu xew da koy gërëm da da ciy bëgg ndax day xam ne suñ borom a ko dogal wax nañu sëñ bi bi ñu jàngee baydu woowu dafa wax ne alaana madaxanaa daane waa mi ngi mi ngi may doog a tàgg nag nga xam ne li mu wax ci ne xéwlu suñ borom laa yooyu yëpp waxu dara waaye bi mu ne ku nangu lu suñ borom dogal la rek yëg na ne tàgg na ko léegi mooy ab jullit day day day day nangu dogal suñ borom tey day wakkilu ci moom kon loolu it bind la bu bu bu mën a jëlee ci ak dundam ci ne euh, gëm yàlla ak wakkilu ci moom lu am njariñ la ci dundu jullit bi bokk na ci it yiñ ci mën a jàngee ci dundam mooy uluwul himma mooy yitte ju kawe njariñ nga xam ne am na ko ci ab jullit yitte ju kawe yitte ju kawe mooy lépp looy bëgg ci lu baax nga bëgg la ca féete kaw la ca gën a kawe rek xam ngeen ne sin bi léppam loolu la bi mu ñëwee dafa jël ba tam teg ko ci ne li mu bëgg a nekk mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mënoon naa jaar rek yoon wi baaxoon a jaar nekkub sëriñ lii di fi lii di fi ay am ñu muy jàngal waaye def ko daa xool lu gën a kawe loolu mooy li mu bëgg a doon mooy abdullahi wa xadimu rasulihi dak ci lu ne loolu moo ko génne fii moo ko yóbbu Gabon moo ko te teqalee ki njabootam moo ko def lépp ba ni ko suñu borom mujjee baaxee ko mu am loolu noonu ba mu mën a yëkkati loo xam ne nazaani minal walal baaxil xadim allamahum bi annani al abdul xadim ba ni ko suñ ni mu waxee ne suñu borom seppi na ko ci mbindee fi ber ko fële te it képp ku ci am tawfeex xamal na la ne la kii moom mooy al abdul xadim muy li ko taxoon a jóg mu yitte ju kawe jooju ndax bu mu ñëwee yitteem ju kawe fépp lu ciy fés gis ngeen loolu Sëñ Abdul Ahad di nettali ci bi sëriñ bi gisee ak yonent bi salaa sallam xam ngeen ne gis yéen sansam dañuy wax ci tasawuf ne jullit bi bu gisee yéen sansam jaxaran ci lu dul ay nelaw mooy seetaan mënatu ko yàqal ci dundam mucc na ci seetaan dootu ko yàqal waaye kon mënoon mu moom lañ fi njëkk dégg ku am loolu askan bi mu bokk te askan bu baax lañ ku am loolu ci moom lañ waaye bi mu gisee loolu doy ko daa mel ne da yokk aw maax li ko sëñ Basiru di waxee mu wax yéen sansam ne ko li mu bëgg mooy bokk ci ñii ñii ànd ak moom muy ahlu ñu wax ko la ca la cay tegee lii kat ku mas a toll fi nga toll mas na koo bëgg waaye buñ ko waxee li ko koy may da ciy génn ndax nanga bi natt lañ lay teg te boo delloo ginnaaw lu toll ne tarfatal ayn da ngay ñàkk li nga amoon lépp waaye ci tëju kawe yi mu ne moom di bind du ruugi bay xam lu mu attan lu mu attanut waaye buñ ko mënee garantir ruugi moom jomam attan na ko buñ ko mënee garantir ruugi moom jomam attan na loolu loolu mooy yitte ju kawe dëgg-dëgg mu si ñeen dëgg yéen sallam loolu mu dox ci loolu ci la daj lim daj lépp xam ngeen loolu koor gi la ci korite gi ci la génn dem Mbàkke Baari ci safar ga lañ ko fi jëlee yóbbu ko ci géej gi del si waatu Tuubaa moom loolu keroog dañu gisee coono yooyu yëpp mu daj ba suñ mu mujj ko fay nag mu ne addani allaahu min ahli badri loolu ko mu signé woon yén saa sallam mu mujj suñu borom defal ko ko ginnaaw bi mu ci doxee kon loolu lépp day fësal rek ne yitte ju kawe lu mënta ñàkk ci bi du bëgg lu tuuti lu rek la gën a kawe lay bëgg bi mu ñëwee dafa fekkoon ñuy wax alfadlu lil mutaqaddimin wala maa asaha ilmu man taqaddama ne daal rek ngëneel li ñu jiitu yóbbu nañ ko moom bi mu ñëwee mu ne déedéet ngëneel ci loxol yàlla képp la nekk jagleelu ko benn génération bàyyi beneen jagleelu ko wenn xeet bàyyi weneen ci loxol suñu borom la nekk te suñu borom amul démb ak tey ak suba moom temps ci ñun la am waaye suñu borom amul lool mu mu mu xam ne mu xam ne ne moom li jullit bi war a jàpp mooy ngëneel ci loxol yàlla la nekk te ku ko sàkk mu jox la mu nekkoon ca tarixa xaadiriya xëy xëy bi mu gisee Yonent sallam daal ne daal mbir yi ni mu ko gisee moom ñii nga xam ne ci Yonent sallam la ñuy jëlee moom foofu la bëgg a jëlee ci nit ñëpp maanaam ñii mënees na leen def ay nawle li ñuy baax baax moo tax bi mu ci jotee rek ci Yonent sallam mu wax ne sëriñ si kat ñi mu doon topp ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw am nañu leer wax dëgg yàlla am nañ njëriñ waaye nag leeru biddiw ak ak ak weer bu ñu koy wax mooy jant bi dafa génnut waaye jant bi su xasee génn soxlaatuñ biddiw ak weer yi te nee na gis na jant bi te jant bi mooy yonent bi salaa salaam mu ne zahadani tuluu shamsin an nazar ila nujumi fi samaai wal qamar jant bi génn ko tax na ba xoolatuma weer bi ak biddiw bi ndax soxlaatuma daal di dox ci loolu nag wéy ci wéy ci ba ni ko suñu borom baaxee daañu baax ñi li ñu amoon ci seeni tarixa bopp mu am ko ndax xam ngeen tarixa yombut tarixa yi am ci ci ci alamul islam bi yëpp bëriwut fu mu daxawaat yi ci biir tarixa yi ñoo bëri maanaam benn tarixa bu am ay woote ci biir loolu moo bari waaye tarixa yi bëriwul yu néew a néew la sax bëri na sax yi ñuy woowee tarixa yoo xam ne ay daaw lañ fi mu euh, mu dox ci loolu kon moom siñ ba suñ borom defal ko tarixaam muy kenn ku njëkk xam ci nit ku ñuul am moo tax daana wax taalibe ne leen lan yetu la ko buum gi leen di jokkal yéen saa salaam du gudd ndax da naan man mii ne moom ne leen buum gi leen di jokkale yéen saa salaam du gudd ba fi mu ne nii mën nañoo gis ñoo xam ne seen diggante ak yéen saa salaam ñaari nit fi dox ñaar maanaam ku mel ne sëñ Muntaxa ci sëñ Basiir la jëlee mu jëlee ci sëñ Tuubaa mu jëlee ci Yonent bi sallallahu loolu moom gis te fi mu ne gis ci suñu gox yi yëpp ku am lu yées juróom-benn jàpp juróom-ñetti nit yombut te sëñ bi la leen doon wax ne leen lan ngeetawula ko bu ngeen ci jàppee buum gi leen di jokkale Yonent bi sallallahu alayhi du du gudd taxawaay boobu mu amoon nag ci xam le ne ngëneel ci loxo suñu borom la ne benn jamono moomuñ ko beneen ñàkk ko amul wenn xeet bu ko am weneen ñàkk ko loolu sëñ bi da koo jëf ba pare da cee fësal ñaari mbir yu am solo maanaam li ñuy ay rupture ay révolution yu am solo la ci def benn bi jëm ci wàllu xeet benn bi jëm ci wàllu jamono ndax bi jëm ci wàllu xeet Ah, ok kon ñuy nuyu sëñ Hamza moom sëñ Sonia di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam kon ñaari ñaari révolution yu am solo la Cheikh Khadim def ci jëf jooju mooy fësal na ci bu baax ne ngëneelu suñu borom amul benn xeetu ko moom bàyyi weneen ngëneelam it amul jenn jamono ju ko moom bàyyi yeneen mooy li mu wax ci Masaalikul Jinaan ne euh, fa laysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu al fahmi ne dar bu ñuul kat tekki wut xel mu gàtt wala ñàkk a mën a àgg fenn fi ci xam-xam xam ngeen ci beneen masaliku jinaan bi sax waxaat na fa lu gën a kawee ne fa lay su yujibu sawadul jismi adama fawzin bi azimi xismi nekk nekk nit ku ñuul kat téewut a man a am maqaama ak daraja yu mag ci suñ borom loolu sëñ bi dagg ci ay xalaat bu juunu bu nit ñi amoon ci ci ci wàllu der bu ñuul mu mu mu wane foofu ne mbir mi ngëneelu suñ borom loolu néew ci ay der bu ñuul ak der bu weex ak der bu xonq ci loolu waaye mi ngi nekk rek ci pas ci yitte ak ci mu defaat beneen révolution bu am solo ci wàllu temps mooy li mu wax masaaliku jinaan ne wala tuxassis fadla rabbin xad ala lisi taqaddumin faqat fatajahala is rubbama uri fatan mu axara maa xaaba amman qablahu wa asura nekkat nga nee lu suñu borom bu ko jagleel rek ñi yàlla foog ni ñi mujj mënuñoo raw ñi jiitu woon daane déedéet léeg-léeg sax mën ngaa gis ku bokk ci mujj ñi am ci daraja ak maqaama loo xam ne ñi jiitu woon sax amuñu amuñu lu toll noonu loolu euh, lu am solo la ci bi def xam ngeen sëñ bi mooy kenn nit ku ñuul kuñ xam ku am tarixa boppam boo xam ne moo ko moomal boppam bi mu ñëwee dafa fekkoon nit ku ñuul ñu di ko xeeb di ko xeeb di ko ba am ci nit ñuul ñi ñoo xam ne dañoo dañoo mujj xeeb seen bopp jàpp ne dañoo xeebu ñoom maanaam nit xam nga nit da nga ko xeeb ba mujj mu jàpp ne daa xeeb loolu dafa mujjoon am ñoom dal ci nit ñu mel ni sëñ bi bi mu ñëwee moom mu dagg jéng yi dëkk mbir mi doxee weneen dox fent yoonu boppam wéy ci ba mujj ñëpp nangul ko mu nekk imaam ci biir jullit ñi ba ngeen di gis waa Madinal Munawwara jóge ca Xijaas ñëw fekk si ko njaareen di sàkku si moom ñaan moom mi nit ku ñu nekk fii ci Sénégal ay nit jóge ca wetu barab yi si moom ay ñaan mu jox leen loo xam ne sax dana leen bu ngeen demee na ngeen ko wékk ca barab ba a loolu yi ju kawe moo ko may tubaab yii nga xam ne duñ ay jullit mujj na ñëw di sàkku ci moom dimbal ba mu di leen dimbale ci lu dul benn ñaar ba ci dévaluation boobu amoon mu joxe 500000 dimbale leen dimbale waa fii ndax xaalis bi waa fii koy jëriñoo at moom noonu président France cinquante mille la joxe bi siñ bi joxe cinq cent mille te jiite France cinquante mille la joxe te boobu boobu mi ngi fii ci Sénégal waa li lim leen doon dimbale kenn xamu nu mu toll pes boobu mu joon am si bi gaalu xaalis def ne noonu gaal waa ko Cheikh Sidé ba léegi gaal gi ngeen ñoom xottu gi mu ko yoon ba mu fees mujj àgg foo xam ne ñëpp lañ koo jàppee imam ci biir diine si muy doon doon bokk ci ñu mujj ñi doon nit ku ñuul yii jëfinam taxawaayam yitteem ju kawee tax na ñëpp jàppee ko imam ñëpp jàppee ko kilifa ñëpp fonk tubaab bi ba ci seen loolu ñu taxawaloon conseil conseil xawma lan des affaires musulmanes boole woon nañ sëñ bi muy kilifay jullit ñi donte mosu caada mosu ko yittew si Ahmad bin Badji ci kilifay tijaan yi gën a mag ci Mauritanie la ak àggoon na ci wóolu sëñ bi donte du taalibe wóolu sëñ bi xam ne kii li muy woote dëgg la ba mu yónnee ci moom ne nee leen sëñ bi nee leen ko na ma nuyul yéen bi na ma nuyul Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te buñ ma fayee na ma ko jottali sëñ bi teg ci ab diir yónnee fa ne leen ne leen ko yónni saa salaam mi ngi koy fay Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi koy fay. doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na Cheikh Ahmad Bamba Diagne dañut ba ni mu génnee àdduna saabu ci xel mi demee mu yéemu ne cey ngir xam na ne li ko suñu bopp dëgg la. keroog bi muy génn àdduna sëñ bi da cee def lu yéeme Cheikh doomam Cheikh la Lamine nee na dañoo xëy Cheikh Cheikh Ahmad Bamba Diagne ci guddi la génn àdduna. suba teel lañ xëy ndawi yi sëñ Tuubaa ñëw indaale ak xasida ne sëñ bi leen yabal nañ ñëw fekk si denc te yëgal yëgalaguñ ko kenn mu boole ci ak xasida wax ci wax yi doy waar ne Cheikh Ahmad bin bi muy génn àdduna seen naa Jibril wàcc na ànd nag nangami malaaka yu bari ñu ñëw ngir teralee ko loolu ba gunge ruum gi yóbbu ko ci kaw daan ne te loolu mi ngi ko amee rek ci menn mbir moom Cheikh Ahmad bin Badi mooy li xusni zannihi bil abdil xadim yi kaana lahu bi karamihil baaxil xadim nan ko mooy rafet jot bu rafet jot sëñ Tuubaa sëñ bi boole ci xasida laqad jaa ruuxul xulusi waxoo mufarriju bi jundin azimin xiina ahmadu yaxruju li ahmada indallahi ma kaana yartaji lahu baana xayrun baabu laysa yartaju ba xasida gi jeex ne loolu lépp mi ngi ko amee ci rafet gi mu rafet njort la ci sëñ Tuubaa radiallahu anhu wa arda kon loolu lépp ay bind la yu yuy fësal euh, sëñ bi euh, yitte ju kawe ji nga xamee ne amoon na ko te mu bokk ci bind yi nga xam ne jullit ñi dañ ko war a jànge ci mu xam ngeen Cheikh Ibra Fall keroog bi muy ñëw di jéblu ci sëñ bi ci Mbàkke Kajoor foofu la yitte sëñ bi njëkk a feeñee bi mu ñëwee ci sëñ bi wax ko wax ju rëy ne ko man de sëriñ bi ma doon wër bu ma ñëwoon ba gis ne fi mooy barabam dama xam ne fii la sama yitte ak sama pas-pas dina ma may li ma bëgg ci moom ma am nee na sëñ bi ne ko man de yonent bi salaam laay roy li may wut ci moom laa koy wut xam ngi ma xam ne asamaan si mas na ko tiim benn bis suuf si mas na cee teg tànk benn bis loolu doy na ma sëkk ci am Cheikh Fall xam ne kii moom mooy waa mu bàyyi mu jiitu mu topp ci ginnaawam mag ñoo ñu toppoon ci Sëñ Tuubaa loolu ñu ko toppoon daleen na jommal ci lépp ñu xam ne moo leen fopp ci lépp ñu bàyyi ko mu jiitu toppuñ ko toppee wuñ ko juddu toppee wuñ ko xam-xam toppee wuñ ko alal waaye dañ koo natt ci lépp gis ne moo leen ci raw ci pas-pas ci xam-xam ci gëm yàlla ci doyloo yàlla ci wéetal ko ñu xam ne kii mooy waa ñu bàyyi ko mu jiitu ñu topp ci ginnaaw yitte jooju nag dañ ko war di jàngee ci sëriñ bi ci loolu ma doon wax sànq bi ko yéen sallam feeñee ci Daaru Xudoos lu mu wax mu ne ko bëggul lii li mu bëgg daal mooy bokk ci kuréel gi topp ci moom rek loolu yitte ju kawe fës na ci loolu te mënoon naa doyloo rek li di seen salaam te xam ne ne askan wi ma am maa ko ci njëkk am bu ko doyloo woon mu doy sëkk nag bu ko doyloo woon mu doy sëkk kon bind a ngi foofu ci bépp jullit ci mu xam ne dunduk sëriñ bi war nañ cee jànge yitte ju kawe beneen bi ci topp mooy bind buñ mën a jëlee ci ak dundam ci wàllu mbaax ak rafet jikko loolu nag dama ciy jël rek seere soo xam ne ki ko seere du jullit moo may gënal sax may jël ab jullit wala koo xam ne ci waa kër sëriñ bi la bokk Antoine Lefebvre benn tubaab la woon bu nekkoon Njaaréem boo xam ne dañ ko indi woon rek moom yitteem moo doon mu xam Cheikh Ahmadou Bamba bi li muy woote lan la dëgg-dëgg lan la dëgg-dëgg nga xam day sëñ ba suri ne léeg-léeg sax bu ñëw ko bëgg a bëgg ñëw daa am ku mu àndal kooku di dajj sàkkee di muy dugg nee na àggoon nañ ci ñoom taalibe yi ñenn ci taalibe yi ne sëñ bi ñaanal yàlla mu jëlee fi ndax ni mu nee na sëñ bi muuñ ne leen kii suñ borom daf maa xam ne dafa ñëw rek ngir setal sama mbir nee nañ mu jaaxal leen ndax kii ni mu melee ba pare di setal mbiram waaye bi mu demee ba noppi ba bind rapport bi bi mu xam ci siñ bi rapport bu gudd la am na fi lu ñëw ci téere Omar ba boobu bi mu génnee rapport bi lañ xam ne lii la siñ bi doon wax ci biir rapport da ciy wax ne Cheikh lu Bamba mii nag li ne ci moom ci jikkoy rafet ak xol bu sell ak yeneen ñëpp aw yiw moo xam ab noonam wala xaritam àgg na ci foo xam ne mbooleem ku ñuy tudd ci nit ñi jiitu woon bu buñ ko ci méngale moom mu jiitu ko ci moom mi daane ñi ko gën a réere gën a réere gën a réer ci nit ñi mooy ñi nga xam ne mas nañ koo tumaal benn bis ne bëggoon na daray nguur wala daray àddina lii ki ko wax dub julit kon loolu mooy wane ne jikko ju rafet jikko ju rafet jullit war na koo fonk saa su ne xam ngeen sëñ bi wax na ne bi mu nekkee Gabon am na kenn ku nekkaloon ci tubaab yi ci njiit yi nekkoon koo xam ne mbaax gi xam ci siñ bi taxoon na bu buy dem mission waa këram sëñ bi la leen di dénk koo xam ne da nga ne dafa def dara ba nga jàpp ko indi ko fi ba pare boo dem di ko dénk si waa loolu mu ngi ci mi nan loolu lépp di wane ne euh, mbaax gi suñ borom da koo bindaale mbaax da koo bindaale xammee wuti ku ku ku ko bëgg ku ko bëggut bokk na ci bind yi mën a jëlee ci dunduk sëriñ biit it mooy ak nite ak dégg sa jamono loolu dafa fees dell ci dunduk Cheikh Khadim maanaam xam jamono ji lim laaj nga def lool sëñ bi bi mu ñëwee fekk na ay jàmbaar yu mag jaar fi xeexal lislaam ba sonn bi mu ñëwee daanaka man nga ne jullit ñi ñaari xaaj lañ woon yi gën fës ci kilifa yi ñu gëm ne dañoo war a xeexal tubaab yi njël seen gànnaay ñooñu tubaab yi faagaagal na leen ñëpp ndax doole tolla wut ak ñeneen ñu gis ne biñ màndaxee diggante ceddo yi ak tubaab bi jàpp nañ ne tubaab yi tane ndax lu métti métti bàyyi nañ leen ñu jullee gi def ñu maslaa ñoom ñooñu ñoo ci gën a mën naa benn benn yu génn ci bi moom bàyyi ñaari yoon yëpp jëlum ngànnaay waaye maslaawut ak tubaab yi xàll yoonu boppam mooy bi mu gis ne ni tubaab yi jiitu nañ ci ngànnaay dafa dem jiitu leen ci xol yi ak ci xel yi mooy ci wàllu xam-xam xam ne loolu beneen révolu beneen euh, beneen beneen beneen résistance la boo xam ne bu pacifique la bu jël ngànnaay waaye buñ demee ba pënd bi wuri rek mooy ëpp le résultat moo tax mu ne inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahida ndax xamoon na ne mbir yi foofu lay mujj moo tax bi bi mu ne bërit dafa samp ay daara samp ay nit seexal ay nit tasaare leen ci réew mi mooy waral bi ñu ko yóbboo ci géej gi ba foog ne mbiri jeex na fekk gars yi ñu ngi liggéey ci suuf bu ñëwee day mel ne benn acier buñ teg ci biir weñ rek bu yëkkatee lépp da koy topp moo tax bu ñu ñëwee dañ ko indee daaru mën naan rek mbooloo mi toll noo xam tubaab da leen jaaxalaat ñu daal di daaw dalaat ci koom yóbbu ko gànnaar kon loolu it bind la boo xam ne nit ki war naa xam ne jamono ju ne rek rawatina bëgg a xeex say àq ak sa yelleef ak yooyu maanaam résistance daal mën naa am te violence du am naa ne te siñ Sëñ baat jàngale na ci aw yoon bu baax a baax danañ jàngee ci ak dundam mën a jéggale ak di suuxat jàmm te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax doo jéggale ngir da ngaa am pexe doo jéggale ngir ay calcul la lan waaye dangay ngay jéggale te yàlla rek tax xam ngeen suñ borom suñ bi wax na ci ay mbindam ne keroog bi mu génnee baar yi suñ borom da ko boole ci ahlu badr ne leen nañ ànd ak moom te saa bu ko noonu sonalee ba ñu war a réagir nañ ko def buñ ci waree dugg waaye sëñ bi dem na ba ñëw mës fa jëfandikoo ahlu badr gis nga da koy junj sax fa woon sa amri li mu xew amri ma ahlu badr bilam ci raay jëfandikoo loolu mooy ku bëgg jàmm dëgg-dëgg am ngaa naay te nangoo ko jëfandikoo mën a jéggale lool tey jéggal te yàlla rek tax gis ngeen lim daj nga xam ne bi ñu ko yóbboo daat nee na tey sama kër na tasaare nañ maag sama jabar teqale nañ ñu te lan dong ma ko yóbbee mooy li may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li ma xillazi anhu madiha xasiru coono yu métti mu daj ko xam nga Sëñ Tuubaa du jàmbat ku dem bay wax tubaab ne leen kat tooñ ngeen jaamu yàlla bi tooñ ngeen ko ngeen ko ci loo xam ne tegu leen ko benn dëgg tooñ ngeen koo xam ne du fayu génn ngeen ko digg bëccëg ci njabootam mu daj ci coono yu dul jeex te tegu leen ko fenn zalamtumul abd allazi la yantaqib li nafsihi mujahidan lil muntaqib axrajtumuuhu min diyaarihi bila xaqin wa jahada wa xaasaahul bala diggante boobu daj na ci lu ne ci ay mettit ak i tartar daan leen waaye loolu lépp bi ma amee it li wajhi man anhu afa ankum afa jéggal na leen ngir yàlla ngir jëm yàlla topp leen dara nee na li fi des daal mooy mi ngi ñaan suñu borom la mu defal ko li bëgg waaye jéggal na leen te yàlla rek tax waxoon na ne sax tolloon na ci mbindam foo xam ne suñu borom xamal na ko ne ko ndax nee na bi xasaay di jihaad yi doon bind di moolu tubaale àggoon na ci suñu borom xamante ne ko boo bawul mbind mi kuy ab yéefati ne ci kaw suuf bu tuubu dina alko mu jéggal leen bàyyi muy law anna nii lam atruk muy eh, law anna nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil isaaba lamaata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatubu li ilaahi gaafiri laakin afawtu an jamii nnaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi nee na suñu borom mujj na ma ahmadu boo bawul mbind mi kuy ab yéefat bu tuubu dinaa ko alak mu ne kon jéggal na leen te yàlla rek tax loolu ci bind yi wala jëlee ci bindu sëriñ bi la ci mën a jéggale moo tax fu ne dafay seeral suñu borom ne ko jéggal naa leen te yàlla rek tax wachat bi afoy anil balaya afawtu anil aadayi turrat li wajhi man nafaahum li gayri sabaran lasu alfahu afawtu anil aadayi leen ak xol bu sedd guy naa leen yàlla rek fu muy wax jéggal naa leen sax faw la ci boole suñu borom xam ne yàllaa tax mu jéggale loolu bind la kon bu am solo moo tax gis ngeen lim bindoon bi mu demee ba ñëw ne ku gis lii kat na xam ne ki ko bind jé jéggal na képp ku ko ma sa tooñ te moom du ñaan yàlla ab tooñkat mi ngi ñaan suñu borom mu jéggal mboolem ay taalibeem di xamal ñëppit ne lim yéene taalibeem yi moom la yéene mbooleem jullit ñëpp loolu suñu tubaab bind na ko loolu bëgg jàmm foofu ku ma tooñoon jéggal naa la du ma la ñaan yàlla sama waa kër li leen yéene moom laa yéene mbooleem loolu bind ngi ci ci ci ne kon jullit ñëpp ay mbokk lañ yéene yow jullit ñëpp it ñëpp a ko war def waaye rawatina ñu bokk ci wàkkat sëriñ bi yéene ñëpp jàmm ji amul fu mu yem waxtu waa ngi sori waaye amul fu mu yem gis ngeen daarul mën naan lim doon métti métti bi ñu ñëw di ko jàpp si mi ngi génn xasida euh, rabbi bi maaye soxla di wax ci biir euh, yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadid irham jami al wara yow suñu borom yow mi borom nguur gu mat yow mi nga xam ne weesu nga fooy fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mbooleem bi def yëpp loolu euh, bëgg jàmm foofu la mën a yem waaye nag lim doon bëgg bëgg jàmm yi beneen bind bu ñu mën a jël ci ak dundam mooy am fulla suñ Tuubaa ku am fulla loolu ci boppam lim doon lewet lewet mën a nëbb mer du topp kenn teewut kenn du ko ñaaj li muy nekk nekk ci biir liggéey fulla ji jamono sa saa su ne day feeñ moo tax suñ Basiru nett na ne ba mu nekkee Gabon am na benn waa ju fa nekkoon doon ko fontoo di ko dëngee am ku ñëw ci moom sëñ bi ne ko daal damaa bëggoon kii nga xool noo maslaak moom rek ndax ni mu lay def daal gënut ma bëggoon rek nga maslaak moom nee na bi ne ko soxlawu ma maslaak moom ndax jaat bi ñu koy def ñu ngi koy yett te leen mu noppi ne ko laa yaxtaaju ilaa musaalaxatihi li annahu xaruba tamaamu naqsi taabutihi allazi yuqbaru bihi waa ji nee na ay fan yu néew lañ ci teg waaja waaja feebar faatu faatu sax dafa dee dee ci saa si nee na mu ñëw ci bi ne ko man daal sa mbir yéem na ma ndax waa ji ma doon wax ñu ngi moom ñu def ci ak kees ak néew jëmee ko Dakar faatu na yam xutuhu yam xutuhu mi ngi nasaara min yow mi fii taabuti xabrin saara amut sikk sëñ Tuubaa ku ko ku ko xëy tooñ bu yororee da nga koy gis amut sikk gis ngeen bi muy dem gànnaar ci fulla ji Merlin mi nekkoon général xam ngeen sëñ bi woo nañ ko ay yoon génn ndax amul amul ndigal Cheikh naa wul da benn naat mandal nee na bi mu jubee Merlin mu nuyu ko moom Cheikh naa mooy Cheikh Sidi yebaloon nee na bi ko sëñ bi jubee bëggoon nuyu Merlin da ne non bañ na du nuyu sëñ moo xam bu ko nuyuwut bi mu ko nuyuwut ah moo xam di sëñ bi sëñ Tuubaa gi ko nuyuwut yaa ko yëg waaye nee na bi mu ko nuyuwut seex naa neen bi mu ko nuyuwut sëñ bi dafa wax ci kaw ne alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jildu min an yamassa min alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jilduhu ne sant naa yàlla mi nga xam ne dox na sama diggante ak yéefar bii ba yaramam laalu sama yaram ca kaw nen la ko wax Cheikh naa ne bi ñu génnee sëñ bi da koy tooñ naa ko yaa Cheikh naa laqad balaghta fil i'tizar naa ko Cheikh naa nag ni nga wàccee sa bopp ëpp na nag yii kat ëpp na waaw Cheikh naa foofu la toll moo tax loolu di wane ne fulla ji sëñ Tuubaa li muy baax baax li muy bëri bëri yéen ne fulla ji moom kenn du ko ñaaj loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci moom ci la bokk euh, ma njëkkanteeg waxtu tuuti rek bokk na ci bind yi ñu ci mën a jëlit mooy sax ci say gëm-gëm ay principe sax suñ tubaab mës a soppi maanaam li mu déparé woon ba ni mu fi jugee mës a soppi mu fi nekkee jamono si ma doon sëli ba si ma doon sëli jugee ba ba ni mu fi jugee moom mës a gis ngeen jamono yi ma doon sëli xam ngeen xasida xaalu safi moom li ko indi woon mooy ay nit yu mu romboon rek dëkk bu suñu ma demoon di fa gane muy dem di jàngi ànd ak maam Thierno bokk ab téeréem bi mu leen nee na benn waaye xool ko am kum xanaa kii mooy seen mbokk mu wéra di mi may dégg nee na kooku mbokkum suñu kooku nag ah moom daal ni la mel daal ne ginnaaw bi lañ ko wax sëñ bi ku la romb rek bokkub téeram bi jàngee nga ne kii wérut ci la bind xasida googu xaalu safihun yu safi anhu ba xasida gi ba ca mujj muy wax na alhamdulilahi is kaanat safahatuna idaamatal wirdi wal azkaari wal di loolu mooy ak ndof sant naa yàlla ci gi ngeen wax damaa dof loolu mu sax loolu rek bi fi suñ moran sali nekkee nga xam ne xam-xam dong moo ko yitteel li nit ñi nekk yitteelu ko bi fi si moom seen nekk Samba Lawbe Fall àggoon na ci jarbaatu Lat Joor sàkku ci moom mu ñëw féete ko fi si moom seen féete Lat Joor mu jox ko ngànt ne ko doomi jullit yi ñëw di sàkku si sama ngoro mayu ma ma leen ma baleen fi da wax loolu ngir rafetal rek ne ko sama ngor ma daal ma baleen fi di ñëw di di di di ànd ak yow sax ci loolu loolu noonu moo wéy bi fi suñu moroom seli jógee ñu waxoon ne ko nañ dem ci Lat mu jox la place bi mu ko joxoon mu joxe ngànt ne leen man laa azabu ilal umaraayi wala argabu fi fi dunyaahum wala atlubul karamata illa min allaahi rabbil arbab ne leen man du ma dem ci buur yi seen mbir yi teelu ma te teraagal suñu borom dong laa koy sàkko mooy li muy wax xaalul yarkan li abwaabi salaatin taxus jawaari si toog nii kulla maa xiin faqultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala su raadiya gayri l ilmi wa diini wala su arju wala axsa siwa maliki li annahu jàlla yuxni nii wa yunjini nee nee nañ ma kat naa jàng jëm ci buur yi waaye ma ne leen nag man yàlla doy na ma doyloo naa ko xooluma lu dul suñu borom wutuma lu dul moom ba waxte mujj ga euh, nu mu koy waxee sax euh, in kaana aybiya zuhdul fi xutaaminhum fa zaaka aybun nafisun laysa nii su fekkee lii ma wan ginnaaw poñatum àdduna mii moo tax ñu di ma sikkal sikk soosu man bëgg naa ko amul sikk bëgg naa ko daal euh, loolu mooy rek ni sëriñ bi doxee nga xam ne bi mu ne bëri àdduna dafa daw wut si ko mu wan ko ginnaaw mu dox ba yàgg àdduna kër kër ne waat cëpp ci kanam moo ko ginnaaw bañ ko faale muy li muy wax ci mun a wiru surul aqbalati dunia ilaya qablu wa baaduha fa zala anil kabl moo tax gis ngeen ci yaareem bi Cheikh Fall dajeeg sëñ Fallu ci kër sëñ mag radiyallahu anhu nee na sëñ mag bi jox leen ndab dugg ci biir ne leen nañ xewlu Cheikh Fall nanguutu xewlu ne sëñ Fallu xewlu ba noppi bi sëñ mag bi génnaatee te laata muy génn bi sëñ Fall di xewlu mu xool Cheikh Fall ko joxuñ ko sëñ bi ne ko moom yéen ñi ko xamoon démb ci Mbàkke Kajoor ak tey ndax am na lu soppiku ci moom nee na Cheikh Fall ne tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu soppiku ci moom de xanaa karaw gi la bu njëkk da ko daan bàyyi muy sëq léegi da koy wat ne ko loolu laa xam ci lu soppiku ci moom sëñ Fall nee na bi ñuy wax loolu la sëñ bi génn ñëw daal ne xewlu ngeen mu ne Cheikh Fall nee na sëñ Fall ne ko nee na naa naa xewlu ba noppi daal sëñ bi ci baatin bi doy mu ne ko tey Ibra Fall moom de Mbàkke Kajoor ba léegi dara soppiku ci moom loolu fës na ci bu baax sëriñ bi euh, ne naka jekk ci loolu la sax mës sa ku ñu ko xam ñëpp loolu la wax mës sa soppi mës kon bind ngi ci ne nit ki lim xool ba xam ne lii mooy dëgg mooy lu baax dara waru ko cee jóge bu juróom wéet moom képp la bu juróom wéet moom képpit da war a sax ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ay bind ngi nii yoo xam ne mën nañ ko jëlee ci jëflante bi war a am diggante nit ak ay mbokkam mooy ñàkk a xeet say mbokk li siñ boo xam ne nit ku ne mën naa ñett mbokkam waaye mun leen ñett nit ku naa ëpp ay mbokkam waaye mën naa ëppale ay mbokkam waaye mënu leen ëpp mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn mën naa raw ay mbokkam waaye su àndut ak ñoom aw doxinam du rafet moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci moom ku sant Mbàkke ne ko ñun dañoo jaaxle ndax daañu dañ ne yow amoo mbokk te ñun yow dong lañ am sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko amatu mbokk kooku commencé bëgg nag képp ku ñaan sama mbokk la ku ne lam baax la képp lañ bokk mag moom bu ngeen xoolee ci bataaxal yi muy bindanteel ñi mbokkal da ciy fësal lool mbokk gi mu amante ak ku mel ne suñ moo jaara ilaykum ayyuha shaqiq a cheikh Mouhamad Diarra yow mi ma bokkal ñaari waajur alamu ibrahim alamu cheikh ibrahim muy sëñ Mbàkke Kajoor yab na amati wa xaali yow sama doomi nijaay yow sama sama doomi bàjjen sëñ bu Buso ila axihi allazi lam yuxaalifu fi sigarihi wala fi kibaarihi wala fi kibarihi ibrahima ibni walidi lii maa ngi ko bind sama mbokk mi nga xam ne ci ndaw ak magam ma sëw juwee ak man ibrahima mi nga xam ne ñoo bokk benn waajur woo góor muy maam Cerno gis ngeen sëñ bu soobe ay ayoha cheikh wal xill wal xaal yow sama xarit sama nijaay sama sama sëriñ ngir jàng na ci moom gis ngeen bi muy bind am na ñu muy bind yaa ixwaani wa asaari yooyu yëpp day wane ne sëñ bi comme ci bind ñi ñi may wax ñëpp doo ci gis kenn ko bind ab bataaxal sëñ bi moom ba di ko tudd mbokk gi ndax ñoom ab sëriñ lañ ko jàkk xam nañ ne ko sëñ Bamba nangu nañ ko waaye moom moo leen bëgg a wan ne mbokk gi dafay nekkoon laata lii te dañ ko a sàmm wéer kon loolu bind ngi ci ci ne nit nu mu mën a mel ci xam-xam ci alal ci daraja ci barke ay mbokkam da leen war a fonk te waru leen xel loolu bind la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel euh, bokk na ci bind yiñ ci mën a jël ba léegi it lii moom naa ko tëb rek ndax xam naa ne waxtu kii na bii mooy ñi nga xam ne ay sëriñ lañ te duñ suñuy sëriñ nu ñu leen war a jàppe sëriñ yi ci lislaam te duñ suñuy sëriñ loolu sëñ bi jàngale ci ne ni ñu leen war dox ak ñoom rek bil i'tiqaadi taam wa husni zanni wa adami i'tiraad ñett yooyu ñu gëm leen maanaam dëggal leen rafet njot ci ñoom te bañ leen a dingat bañ leen a dingat dootu duñ suñuy sëriñ moo tax gis ngeen ci Masaalikul Jinaan muy muy wax fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi ne wird yëpp bu ci nit ki jàpp te tënku ci sàtte yi mu ngi ko jëmee ci suñu borom sëriñ sëpp ci dëgg lañ ne lu baax lañ ne ci lu baax lañ doon woote yemut ci loolu moom sëñ bi waa dafa mujj sax wax taalibe mi ne leen fu ngeen gis ak ñaan wala wird ci nit ku baax may naa leen ngeen jëfandikoo loolu ci Sëñ Tuubaa du ma ne ci moom dong nga koy déggee waaye néewaa na am na ci tariixa yoo xam ne sax boo ci nekkee di yenn yi dañ la koy tere te loolu luñ mën a layal la ñu xam la waaye moom daa wax sax ne leen wa amma ahzabul aqtaab wa daawaatu saalihin fa azintu lakum bi isticmaali bi fa azintu lakum jamian fi l amali bi kulli ma tayassara bi kulli ma tayassara lakum minhu minha haysu wajadtumuuh yi jógee ci sëriñ si ak seen ahzaab yi lu ngeen ci mën a jëfandikoo may naa leen ngeen jëfandikoo loolu mooy dëgg-dëgg ubbi ko dëgg-dëgg yi lislaam te bàyyi parparloo ci biir lislaam bi yemul foofu wird yëpp da ko doon jëfandikoo ba mujj wax ne ñi yori tarixa ñëpp gërëm nañ ko radiya anni sibtuhu jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu min xalidul xasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mu bidil jaani ne ñett ñooñu gërëm nañ ko ñooñu bu ñu ko gërëm mooy ñi yor tarixa ñëpp gërëm nañ ko ne ñu suñ borom gërëm ñëpp gërëm nañ ko ne xulafa al arbaa gërëm nañ ko radiya anni xulafa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa ne suñ borom waa xulafa arba xulafa rachid gërëm nañ ko ñi suñu borom tànn ñëpp gërëm nañ ko moo tax loolu bind la boo xam ne war nañ koo jëlee ci sëñ bi ci nekkat da ngay am sab sëriñ jàpp ko waaye sëriñ sëpp nga nangu leen te bañ leen a diingat bind bi it mooy suñu diggante ak suñu mbokki jullit yépp rek ñi nga xam ne bokkuñu ñoom fu ñu fu ñu féete li ñu war a jàpp rek mooy li suñu boo xam ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñëpp ñu góor ñi ngi jigéen ñi samay mbokk lañ wax ñaan suñu borom ne ko na ko may mu mu mu yéene ñëpp aw yiw wa aghnina bi hubbi kulli muslimin wa najjina min sharri kulli mujrimin nag ma def ma bëgg jullit ñëpp jéggi foofu sax ba sol bu avocat ci kanam suñu borom bi défendre jullit ñi wa najjihim wa aafihim wal tuf bihim wala tuwaaxisum bi kusri zanbihim ba bay di jeex ñii kat jégg bu leen topp fa innahum wa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad buñ la mooyee it seen xol yi moom yow képp lañ gëm xam nañu yaay yàlla yaa fi ne buñ la mooyee dañoo topp seen bakkan rek kon jéggal leen ne ko nag sa yërmande gii boo leen ko joxee du la wàññi dara te ñoom buñ ci jotut seen dara lu baax kon maa ngi la ñaan nga jéggal leen fala tuaxisum bi maa laa yanqusuk wala humu habil lazi laa yanfau àgg ci wax suñu borom ne ko kat laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan ak sartali jadwaaka ne ko kat xeet yu sallallahu alayhi wasallam bii amuñu kenn ku dul yow ma waxin bi muy wax ak suñu borom sax da ngay xam ne dafa am tawfeex maanaam yow mi nga xam ne kat sa xéewal yi bari na ci man ba mun ma koo lim maa ngi lay wax na nga gestu xeet yéen saa sallam gestu leen ndax amuñu ko dul yow suñ tubaa ni muy ñaanee suñu borom sax ndimbal da ci am da ngay xam ne ñaan gi buy noppi moom ñaan gi nangu ndax fi mu ko yaaru shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil xadiril gafuril rahim inni aqulu wa inni al yawma zu xajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali bari na bari na yum ci wax fa inni la imun asirul hawa wa asin walakin ilahi halim ba buy wax ak yonent sallam sax yaa sayidi yaa buxyati yaa yaa junnati haasi mubayaatun ila yawmi liqa yow sama sopp bi yow sama ki ma sopp maa ngi maa lii kat ab jaayante la maa ngi ko jaayante ak yow ba ba ñuy dajam ak yow nga xam ne fi muy buy wax sax da ngay xam ne kii daa am tawfeex ci anam gi muy waxe bi ma ciy mujjee rek mooy ay bind yoo xam ne nag kilifa kilifa war na koo am ci digganteem ak ñim yilif bi ci jiitu mooy kilifa gune ne bu jiilifee ak njabootam war naa am seen yërmande loolu danañ ko jàngee ci dunduk sëñ bi yaa rabbi jaalil muridina ma fi xisnika alxasin wa shamla jamaa suñ borom muridi maa ngi lay ñaan nga dajale leen nga boole leen ñu nekk benn aar leen te buñ teqali ko yërëm leen bu ñu amee ay jafe-jafe lu mu ci man da ko ci def gis ngeen ba mu nekkee ca Gabon suñ Lampagne set ak euh, suñ ba ca des ñaar lañ am na fu ñu leen yóbboon Luango ñu bind bataaxal yónnee nekk suñ boobu suñ baa ngi Gabon di ko wax ne ko tubaab yi dañoo indi fii wax ay wax daal di ko wax seen mbir suñ bi nee na bi ma jotee seen bataaxal rek aslamat alaya dunia wa takaddara waxti shafaqatan lahuma nee na àdduna dafa leen dem këriis ci man ma nekkatuma ci jàmm daal ndax euh, yërëm naa leen ndax xam naa tubaab bi bu baax a baax te xam naa ne mën nañ leen def lu tax seen ndëm ak seen pasos seen borom am lu ci sëkk nee na dafa maa fekk may bind ak xasida ci saasi damaa soppi ni ma doon bindee ñaanal leen yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajuru shakka yow mi jéggale bàkkaar yow mi tinki jéngi tinkil jéngi jullit ñi te musal leen ci lépp lu mën a indi jii jaaxa ci pasos bi a seen diggante ak yow loolu kilifa diine daa am boobu responsabilité bu ko yëgee ak bu ko yëgut yërmande ji mu war a am ci ñi nga xam ne da leen a da leen da leen a ak nosu sëñ Tuubaa jàngale na ci lu bare baree bare dëkk yi sos jëwriñ yi mu doon sanc yi mu doon yi mu doon samp maam Cheikh Anta Faye Daaru Salaam sëñ Mbàkke Bousso bi muy dem Mbàkke Baali mu bàyyi ko Touba borom daaru moo ti yore daaray xam-xam ji sëñ Daa Abdourahmane yore daaray alxuraan ji bi muy dem ci géej gi mu jël jaboot gi teg ko ci loxol maam Cerno yooyu nosu googu noonu loolu bind la ñu war a jàngee ci sëñ bi li mu bëgg mu leer ci moom boo xoolee matlabul fawzeyni nga xam ne kii lim mu bëgg leer na ci moom maanaam mashron bi am na ruya vision bu leer am na man manhaj muy méthode bi mu koy jaar xam na ko am na waax tamit ci lim soxla ngir mën a ngir a jëf loolu waaye fonk diisoo bokk na ci li kilifay yi a jàngee ki dunduk sëriñ bi mooy fonk diisoo ak ñi ngi yilif yàlla yàlla yilif li suñ bàkk bésa di wax naan képp ku nee nañ képp ku bëri li muy diisoo lam yaadam inda sawabi maadihan wa inda alxata i angéra képp koo xam day diisoo bëri lu muy diisoo bu jëfee bu dee noonu la nit ñi danañ ko tàgg bu juumee danañ ko jéggal ndax kuy diisoo la sëñ Tuubaa gis ngeen ne école ba mu yox franco sax bi ñu ko bëggee ubbi njaareem dafa dajale mag ñi laaj leen seen xalaat ci tënk rek xalaat suñ bàkk ba su lañ mujj jël bi ne nangu nañ ñu ubbi fi daara ji waaye ñoom ñu jàngale ñun ñu tubaab tubaab bi di jàngale ñun ñu wéy di yar loolu 1912 ubbi woon nañ ko Mbàkke Bawol gi sax école bi bi waaye it bokk na mooy ku yilif ak njaboot war nga di leen àttu saa yoo ko jaree saa boo leen war a wax dëgg nga yaar ci digg bi nag xam ngeen ne Sëñ Tuubaa déclaration bi mu njëkk a def Mbàkke Baari fit moo ko may ndax ñi fi nekkoon ñëpp xam-xam moo leen fi indi woon mu xëy xëy ne képp ku fi xam-xam képp indi woon man ngaa yeewe ko ñi ëpp dañoo dem ñun ne ñoo fa des Sëñ Basiir nee na bi mu nekkee fii ci Touba mas naa yónnee Daaru Salaam ku ñu wax Sëñ Ablaye Jaw ko boo demee neel feree fi àdduna képp indi mën naa dem ku mën naa dem ku fi àdduna ak alaaxira indi mën ngaa dem ku fi yàlla képp indi nag mën ngaa toog loolu ku ko waxoon tey ji bu suwaa doo gis kenn ndax mbooloo mi kenn nekk fi ak bind nekk fi ñooyam ci moom ci dëgg rek lay àndal ñoom loolu maanaam di wax lu leer bu ñu ko waree wax loolu bind la ci kilifa yi war a jàngee ci Cheikh ba ci Cheikh Khadim gis ngeen rakki lab jot yoo jébaloon biram kod bi mu jébaloo ci moom da ko ne la nga jëlee woon ci xarab sàmm Sadio da ngay dem delloo lépp ma doog a nangu njébal boo ko defut du ma ko sa topp lépp ba lab jot sax xarab nekkoon na ci dal ci mujj bi mu am sens dal ci kaw yooyu yëpp day wane ne naka jekk li suñ bàkk bu soo waxoon ne wallahi ma ahidna xattu yuqiru ala al manakiri euh, yuqiru ala al baatili aw yaskutu ala al manakir la xaifan wala gafilan ne suñ tubaa ñun ñu ko xamul mosuñu koo gis mu mu nangu ab safaan wala mu nopp ci naka su dul noonu ci noppi ngir ki ko def da koo jege du ci noppi ngir liñ jëf dafa tuuti saa bu ñu defee naka su ci saas day àttu suñu mel la mi joon mi ngi nettali ne am na bis ci njaareem waa barsàq yi toog am benn soxna bu leen seet si fi siñ baa ngi leen dégg ñu ngi ci am soriwuñ ko lool soxna sa di jëw di jëw di jëw di jëw ba yàgg rek siñ bi gëdd leen nee na bi mu tàmbalee jëw moom waa barsax yi dañu dañu waxatuñ ndax xam nañ ne siñ bi da koy bañ waaye nee na siñ bi dafa jub gëdd leen rek ñu daw ñoom ñëpp ñëpp daw nee na siñ bi basan gi ndaw sa toogoon da ko indilul taal ko ci keroog ne basan gi mu toogoon nañ ko lakk loolu lu kawe la ci jëw jëw maanaam jëw ni ko tuutalee léegi ak moom mu àgg ko foofu basan gi mu toog sa la ko taal loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci loolu la bokk bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa diine ak kilifa aadama ñu war a jëflanteel mooy noonu suñ bi waxoon rek ni mu doon jëflante ñoom mooy di leen laabire di leen wax dëgg di séq ak ñoom jàmm ngeen jaboot gi yenn a ko séq waaye saa bu leen waree laabiré mu laabiré leen bu leen bu leen di laabiré mu leen fàttali leen si baax ak leen fàttali seen ëllëg ku xool bataaxal boobu mu yónnee woon ku mel ni Ahmadou Makhouredia wala bi mu yónnee woon Samba Laobé Ndiaye loolu fees na ci lool lool lool bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa kilifa njaboot kilifa akum njabootam rek nu mu war a jëflante ak ñoom mooy li sëñ bi bataaxal bu mu bindoon yónnee ko mag ñëpp ne ko jàngal ndax da ko bëggoon a jàngal te fekk ko fi ne nañ soxna Fatou Tuuti Diop gis ngeen sëñ ma Lamine nee na bind na juróomi kaamil waa barsàq yi daanaka ñoom ñëpp noonu lañ mel loolu lépp di wane ne daana yittiwoo lool njaboot gi ñu di leen jàngal ak ñu am xam-xam ñu xam seen xam-xamu kon su ma bëggee tëj rek ci juróomi minute mën nañoo wax ne rek euh, bind yi ëpp solo daal yi ñu mën a jàngee ci dunduk sëñ bi mooy jullit ñi war nañoo fonk mbokk jullit gi dox seen diggante war nañ ko fonk war nañ koo bàyyi xel xam ne euh, suñ borom a leen ko boole te lu ñu war a sàmm la jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax loolu suñ tubaab di wax naan xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalxa yaa man jaddahum badaa nga xam ne day jéggi sax xeetu yu saasam di wax ne mbindeef yëpp rek euh, yow mi nga xam ne seen maam aadama yaa ko bindoon na nga leen yërëm ñoom ñëpp kon loolu bind la ndax am na fu muy waxee naan chaxalat ni ibadatu rabbil alamin wa xidmatu xayril alamin wa lishtigaalu bi masaalihil alamin alamin jaamu yàlla liggéey yonent bi salaam ak jariñ bindeef yi ñett yi ñoo tax ba taluma di mbiccoo ak di mbaaloo loolu bind la ci ab murit war naa fex boo tam jot war nañ cee jàngee ni ñu ko waxee sànq nit ku nekk mu dégg jamonoom xam fi jamono toll muy doxee noonu ndax li Sëñ Saaliw waxoon nañ àdduna ab tëli la ab tëli la tëli bi nag ni nga ko fekk rek noonu nga ci mën a dawee boo fekkee ay pax ci ay pax ngay daw boo fekkee mu tàlli ci lu tàlli ngay daw boo fekkee ay ay mën a daw kon jamono ju ne it xam ne mbir yi dañ ko war a dëppaleeg jamono wàññiwu ci dara nañ tënku rek ci njàngaleem lislaam wattandiku lépp lu jëm ci parparloo ci wàll pas-pas ak diine ndax sëñ bi ne woon na man itaxasa inna wa innama fala yuaadi muslima maanaam inna cheytaan lakum aduwwun ak innamal muminuuna ixwa ne ñaar yi ku ko bàyyi xel doo noonoo kenn mooy seytaan li wax ne seytaane seenum mooy seenum noonu ne bi leer na ak li mu wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ ak li mu wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah leen ko noonoo na ngeen ko def na ngeen ko def kunu muhibbina kunu muhibbina al xuyuura li jamia xalqi ilaahina al muqaddimi al badia mbindeef suñu borom yëpp na ngeen leen yéene yiw te na ngeen leen yéene ak mbaax war nañoo jàng ci mbindum ci dunduk sëriñ biit jikko ju rafet xeex ñàkk xeexuk réer xeexuk réer sëñ bi lim sampoon ci ay daara lim wutoon ci ay téere xam ngeen daara ji sëñ Mbàkke Bousso nee na sëñ bi lim ci dajale ci ay téere kenn mës koo gis yoo ci gox bi muy daala ji nga xam ne bëggoon na ko indi fii ci Touba te Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ko nii muy lu am solo ñuy ñaan mu mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom sëñ Mountakha ba fekk njëriñu lu bare bari ci daara ji daara joojoo yeneen ñi fi nekk yëpp muy azhar mu yoneen yëpp yooyu dafa dugg ci li nga xam ne lu sofu la ci bind bi sëñ bi jàngale woon ci xeex ak réer ndax loolu moo ko fi indi woon muy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa mooy ci xam-xam jikkoy rafet ci lay ci lay ci lay liggéey yàlla su ma doon tënk rek ndax waxtu wi sax maa ngi jàll benn ba ñaari minutes mooy ne daal dundu Cheikhul Xadim gi dund gu barkeel la dund ku fees dal njariñ la dund koo xam ne kenn mës a gis lu ni mel ci njariñ ci yiw ci fees dal ak mbaax ci fees dal ak ay bind yu ñu mën a jariñoo loolu taxoon na ba mu waxal boppam ne xustu xayaatan laa tura li xayri mujizatan baanat li usni xayri dund gii ma suñ borom defal gu ni mel kenn dootu ko gis ci kenn ne loolu nag suñu borom defaluma ko man waaye dafa bokk ci xar baax yi mu defal yonent bi sallallahu loolu ci bind bu ñuy jëlee ci dunduk sëriñ bi ci la bokk ak li mu waxit ne baana li kulli man ko wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am toq ak toq ci ci ci ci xam dara ci suñu borom ak ci ndimbalam xam nga ne man ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk wax ne la ashukku abadan fii kaw nii jaaral badii ajaban lil kaw nii du ma sikki sàkk mukk ci ne dëkkaaleeb suñu borom laa te damay sax di doon kéemtaan ci mboolem bi def yëpp Sëñ Tuubaa mooy kéemtaan goo xam ne loo ko gën a xam mu lay gën a yéem Sëñ Tuubaa loo ko gën a xam mu lay gën a yéem portable bi bi muy doog a génn di foto da doon yéem ñëpp léegi kenn ñëpp xam nañ ko miin nañ ko waaye Sëñ Tuubaa safaan bi la loo ko gën a xam di ko gën a jege mu lay gën a yéem kon nag li ci am solo rek mooy ñu xam ne daal suñu borom bi muy séddale ñun ñii bokk ci waa kër sëriñ bi sédd nañu fàttewuñu te sédd nañu lu rëy sedd nañu cër boo xam ne ku ko bokkut ñun am na lu ñu la gañee ndabul suñ Tuubaa li ku ci sukk dara rëccu la kon nañ ko jàpp ak suñu téeméeri loxo bañ cee dellu ginnaaw xam ne euh, koo xam ne boo taqee ci moom texe àdduna ak alaaxira euh, bu la ci suñu borom boole war nga koo sant ni ñu koy santee nag mooy defar suñu jikko kenn ku nekk ci ñun fexe ba mel melokaan woo xam ne ku la gis xemmeem sëriñ bi loolu rek mooy lañ ñu mën a defal sëñ bi sëñ bi amul lan lu ñu ko mën a defal fi ne lu dul defar suñuy jëmm ba ku ñu gis xemmeem sëñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk ci ñun rek mën na ci dara li sëñ Abdoulaye waxoon ne ku ne da jàpp ne aw sayu matt la kenn attunu say wi waaye ku ne da nga ci yor genn matt goo xam ne booy tëdd gàdd ko booy taxaw gàdd ko booy toog yor ko booy nelaw gàdd ko ca kaw waaye bu mu laal suuf mukk mu li sëñ Muntaxa waxoon ne bu mu suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér moom Cheikh Mamadou Muntaxa ba yéene yi mu bëgg a defal bi yëpp mu àggale ko ñoo maa ngi siyaare kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci suñu wajur sëñ Xamsatu Mbàkke ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp wax ji xam naa jaxasoo na li ma waajaloon it wax dëgg euh, matut àggut xëy na it mbokk yi nañu ko doon xaale waroon naa gën nii waaye rek moom mi ngi noonu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci waxtaan wu am solo yi ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci jotal gi dafa mel ne euh, li ngeen fi indi toqal ko ci noppi ñi nga xam ne ñoo doon déglu lu ama ama am solo la biñ ci gën a jàpp rek te war koo mën a def muy kiimaan yoo xam ne eh, war nañ koo mën a jëfe ñun ñi nga xam ne ñoo topp sëñ bi saa su nekk eh, loolu mu waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko doy na ma sëkk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam asamaan si nga xam ne moo ko doon tiim ak suuf si nga xam ne moom yonente bi ci la doon dox ma di ca dox di ku tiim mu mu di ma tiim may topp mboorum yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk sëñ bi nga xam ne dañoo jege lool mën nañ ni mi ngi nii kon war nañoo mën a topp fi nga xam ne foofu la sëriñ bi tegoon tàkkam war nañoo mën a góorgóorlu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne bi jàngale woon na ko ak bépp jikko boo xamante ne bi sëriñ bi radiyallahu taala anhum melo woon na ko euh, cañ nekk ci am njàngaleem ñi nga xamante ni dañuy sàkku xam-xam ñu fonk téer yi nga xam ne sëriñ bi da ko bind lépp lu ci jàngale ñu jéem koo def tey ñun sëñ bi rek lañ am ndax benn naaru gànnaar euh, mas naa ñëw ci sëñ bi di ko seereeloo ne ko dama bëgg nga seereel ma ne ma man ab sërif la sëñ bi ne ko ab sërif nga dëgg la waaye na la biir ne day loolu doyut na na ngay tañ sa bopp ci aju gi nga aju ci man aju gi nga aju ci man daal moo la gën a mën a jariñ ci doon gi nga doon ab sëriñ kon loolu ku koy wax am naar gànnaar xam nga ne ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci sëñ bi war nañoo sant bu baax a baax war nañoo topp mbooram war nañoo dox ci ay jàngaleem li sëñ Maam Moor euh, tënk lépp ci waxtu wi xëy na mënuñ cee jaaraat waaye daal liñ ci soññee mooy ñu dégluwaat ko te jàpp ko bu baax a baax ndax sëriñ bi lépp kiimaan la noonu ma ko mujjee léppam lépp sëriñ bi rek kiimaan la kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla baaxe ñu nekk ci ginnaawam war nañu sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax kon eh, ngir xataayu waxtu wi eh, dañ leen di xamal ne rek eh, jataay bi am na amoon na gantay di sëriñ Hamza moom sëriñ bu di koo xamante ne bi ku xam-xam ñor la kuy jàppale daayira bi itam la koo xamante ne bii lépp sëriñ bi itam eh, ñor na ko bu baax a baax ku liggéeyal sëriñ bi ñor la kon daayira Muxaddamatul Xidma di ko sant bu baax a baax ci teewaay bi ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom la àndal muy délégation boo xamante ne bii bu am solo la eh, muy koo xam ni itam eh, ni mu taxawoo daayira bi ci xam-xam ak ci wàll gu nekk fes na lool xëy na am na ci yoo xamante ne bii duñ ci nekk di ci yàgg waaye daal waa daayira bi li tàmbalee sëriñ Afiya Buso al imam mi nga xam ne moo jiite ak mbooleem mi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñi ngi koy sant bu baax a baax ci mbooleem taxawaay yi eh, di santaat eh, sëriñ Mamor mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi eh, di leen xamal ne subaak jàmm incha allah ñi ngi am tomb boo xam ne day wax ci al ixlaas war riya fi asri tawasul al ijtimaai muy ixlaas sellal ak ngistal ci jamono ji nga xam ne jamono la joo xamante ne bi tasukaayu xibaar yi dafa yaatu lool mel ne réseaux sociaux yi ak yu demee noonu kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm euh, di tomb boobu nag euh, ki koy def mooy sëriñ Abo bu Kebe euh, ñu koy ñaanal yàlla may ko tawfeex ñu mën a fekkee waxtaan wi suba ak jàmm incha allah kon ñu ngi dox dig daje suba ak jàmm incha allah ci tomb boobu ñuy sant di ñëpp di gërëm ñëpp. wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi